alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu feetu bi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ki nga xam ne moom mooy sabab bi pour ñu daje fii tey mooy Seydi Cheikh Mouhamad kebe wëllëre ci yàlla di xarit ci yàlla di mbokk ci yàlla di borom yitte te bëgg bàyyi lool ñu mën ko tuddee xaadimul xadaratil ibrahimiyati fi Ndofane ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla aar fi mu bëgg a yegg yàlla na fa yàlla yàlla na ko fa yàlla may mu yegg fa ànd ak tawfiq yàlla musal ko ci tolof tolof ba bés pencum yàlla moom moo ma joxoon thème bi nga xam ne moom la ñuy war a waxtaanee fii mu nekk thème bu riche mooy relation Baye ñas diggante Baye ñas ak muqaddamam yu mag yi fii ci senegaal ak fudul ci Sénégal xam nga soo waxoon relation bi jaar diggante Baye Niass ak muqaddamam yi ci Kaolack rek mbir la soo waxoon relation bi jaar diggante Baye Niass ak yi fii ci Ndofane rek fii rek euh, mbir mi daanaka kenn du ko mën a jeexal waxatuma la nag su nekkee ne ci Sénégal la bam daj ak ci tamit mu ne والامتداد العالم الإسلامي مانا تي أدنى بيب بيب ريلاسيون بو باي أمونا كن تي مقدمة ميماجي تي مقدمة ميماجي كن خمر نتول ندخ كيبو كو خمنا رك باي جلنا بيك تك كو تي كي بندل للي جاز رك تي مقدمة ميماجي نبو تي دقونا شيخ طاهر بوتي نينا موغي دان ور تي بير نيجيريا نيغا خمنا باي مولين لي جازال تي بندل خوم مو دجالي تي لو جيغي ñett ñetti junni lijaasa mu ne mu sonn daal di arrêté kon nga xam ne suñ bëggee waxtaanee relation Baye ak kibaarul muqaddamina yi ci Sénégal waaye alam ti daadil alamil islaam yi danañ wax ba suñ dund jeex waaye duñ ko mën a jeexal waaye nag maa ngi daan wax fan laay war a tàmbale ma gis ne comme que ci Sénégal laa nekk nañ tàmbale ci Sénégal mënuñoo jël ñëpp waaye ñu tàng doonte ñett la ñu jàll ci Mauritanie gu jege gi ñu tànn doonte ñett la su yaatoo ñu jàll ci nigeria tànn doonte ñett la waaye su loolu mënul am nañ fexe am ñett fii ci Sénégal ñett fii ci Mauritanie li ci des ñu dencaat ko bañ dajewaat incha allah parce que lii mën na nekk silsilatul muhadaraat te bu ëllëgee sax suñ fi dajewaatee oustaz Mouhamad Kébé thème bi ni mu yaatoo ak ni mu amee njëriñ Seydi Mouhamad Lamine Kouta mi Eh, njëriñu fi sànq ci waxtaan gu am solo eh, danga ko ciy jox wàllu da ngay xool rek eh, lu mat juróom muqaddam wala juróom benn rek nga ne ko su ñëwee na ko tàmbalee man tamit su ma ñëwee am si doonte ñaar wala ñett dina baax te loolu jàng la ndax muqaddamu bàyyi ay école lañ lépp lu bàyyi wax ci taalibeem yi wax na ko ci muqaddame mi ndax bépp muqaddam taalibe la waaye nekkul bépp taalibe mooy muqaddam bàyyi li muy wax ci taalibeem yi te taalibeem kenn ku nekk xam na ñoom ñëpp war warlul na len wax na ci ñom ay wax yu doy war yu am solo yu rëy wa ayu sihabin misla man qad raaytuhum falam ara yawman misla sahbi bi mawdi bay ko wax won ma rek ci aduna bi ñu melni sama talibe bi dem na fu ne waye falam ara gisuma yawman bés misla sahbi ñu ndulok sama talibe yi bi mawdi ci ben place te lele nga nga deg mu ne qaddamtuhum fi nahjina tijani wa kulluhum qarmun rafiu shani gañoñu ma maa leen jiital def leen ay muqaddam ci tariqa bi te wa kulluhum kep ci ñoom qarmun sang la kalifa la rafiu shaani ku mbiram màgg la ngay gis mu jox nit tariqa legi bolé walé ko ci lijaza bi nga deg mu ne li sirrin fihi alamu qaddamtuhu hina li sirrin alamu maa ko jox tariqa bi léegi waaye maa ko jox lijaasa léegi ñu ne lu tax mu ne li sirrin fiihi alamu ndax secret gi ma yàlla woon ci moom kon muqaddamu bayyi lepp lu bayyi di wax ci talibé té yag na wax ci ñom falam ara fi sharqil biladi wa gharbiha نذيرا لأحباب أمما ولا خيخ من ورنا بنكوك سو واي جيس من يمل سما تالبي وكلهم شملهم ردائي محبتي لكلهم ولائي نيوم نيب سما سر تغونا سين كو سما تالبي يب سانغينا لين سما سر سر بو ماي رداء الفايدة التجانية sàngee naa leen ko te mahabbati li kullihim wala yi maanaam sama mbëggeel ci ñoom wilaa ula wilaa wala soo déggee wala mooy péetewoo te képp ku bàyyi féetewoo rek yow texe nga da nga gis su demee Nigéria mu wax ci soppe yi foofu mu dem Mauritanie wax ci soppe yi foofu te la muy wax ci soppe yi foofu yépp yasduqu li kulli muqaddamin lahu alaqa bi cheikh min kibaari muqaddamihi وقد تلقانا بكل فرح ركب على النجب وكل مره ركب سعوا قدما إلى المعالي كأنهم طير على الأجبال أحبابنا جزاهم الوهاب خيرا وفيه طول دهر غابوا شريح للجنارية من ne gaa yaa ngi may teertu fële ca Rosso mu ne rakbun mu ne waqat talaqaana mu ne gàttandu nañu rak bu mbooloo ñam muy tudd ay taalibeem dañ foofu ci Mauritanie alal nuj bi ñoo ngi war ay naaru góor wa kulli marahin ñoo ngi ànd ak bépp mbégte ndax ki bàyyi la ñuy teertu bàyyi ne rak bu mbooloo lañ goo xam ne sete la goo xam ne sa aw xidman ilal maali gaa yu yàgg dox jëm ci maqaama yu kawe lañ ka annahum tayrun alal ajbaar yi moo ngi mel ñoom ay njanaaw lañ yu tag ci kaw ay doj bàyyi ne ahbaabuna sama taalibe yi ahbaabuna جزاهم الوهاب يلن لن يلا في يلا مي وهاب كي ماي خيرا يو وفيه طول دهر غابو تو فيه تي يلا لا سمت علي غابو تي يلا لن يفرد تي يلا لن ابسانتي طول دهر ب جمانو جيخ تي يلا رك لن ابسانتي ño ñu ñoy talibé bay té lu bay wax ci talibé rek yasduku fi kibari muqaddami alladhina lahum bihi alaqa nga xamné amna ñok Eh, dafa am benn aay alquran bu yàlla di wax wa jaalna minhum aimmatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun alquran na ci biir bani israila wa jaalna def naa ci biir bani israila aimmatan ay njiit yahduuna bi amrina ñoo ngi jubal nit ñi ci suñuy ndigal lama sabaru bañ muñee jafe-jafe yi woote jëm ca yàlla wa kaanu bi ayatina yuqinuuna te amoon nañ yaqiin ci samay kéemtaan man yàlla aay bi mboolem muqaddamu baye nek ci ko suuf te bàyyi am ak ñom relation so xolé aaya bi dañ ko gis ci bir kep kenn kep ci ñom yalla def ne wa minhum aymatan ndeke imam ben, so xolé kep ko xamne muqaddamu baye la da nga fekk njit la aima jamu imam la njit lay firi mo xam am nga jakk wala mo jakk yahduna bi amrina ñongi jubé ci suñu mbir nit ki suy jubal mbindeef mi toujours day fekk moo ngi jub ku jubul mënu jubal kon ndekete koo xool ci muqaddama bàyyi da nga fekk moo ngi hidaaya ngir mën a jubal mbindeef mi bi amri naa ci sama ndigal koo gis ci ñoom am na ndigal ndax fa mu wéeru daa am ndigal ndax kenn ku nekk yàgg na dégg ba bayti boobu ñuy repete dal abdu qad laqiya ayna al ilmi fa jaahu l iznu bi duni wax mi jaam ji ngay gis ni de dem na ba dajeeg jëmm xam-xam ndigal dikkee ko ci jëlee ko ci jëmm xam-xam boobu waaye bi duuni wax mi nekkul sax ngelmaande nekkul daa nelew nekkul daa nekk ci jeneer waaye ci yaqin ne gis na yonent yàlla muhammad mi jëmm xam-xam mu jox ko ndigal beneen bi tamit da gis ne lamma sabaru bañ mu muñee gis nañ ndekete tariqu daawati ilallahi la yaxlu min aqabatin ndax waa ji laaj na Baye Niass ca Makka Abdul Karim Niyazi murasilu jaridatil bilad di ko wax bàyyi yan mooy jafe-jafe yi nga xam ne war nga kaa joytu tey ci biir tariqu daawa ilallah xëy na moo ngi doon xaar bàyyi tegal ko ay projet bëgg nañ ngeen dimbale ñu si lii bëgg nañ ngeen dimbale ñu ci lii bàyyi ne ko déedéet tariqu daawati ila llahi la yaxlu min aqabati walakin allaha ida baasa abdahu haya lahu asbaab annajah yoon woote jëm ci yàlla musul ñàkk ay jafe-jafe jëppi ca jamono yoon ci yàlla nuuhu ba tey kuy woote ci yàlla da nga gis ay jafe bàyyi nag ne ko waaye nag yàlla su préparé jaamam ci yoonu woote jëm ci yàlla il faut mu préparé ko yoon ya muy jaar ba réussir fekk dara du ko lool kon lam lamma sabaru wa kaanu bi naa ayatina yuqin da ngay am tamit yaqiin de gis nañ ne relation bi Baye am ak taalibe mi te bàyyi ak taalibee mi relation yi ñaari façon relation la benn bi bu zahir bi la waaye balaa mbindeef mi Baye ngi amoon ak relation ak taalibe mi comme nam بيتي بكنزية دم أو كنت ولا أو كنت قبل تعارف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا بذاك بدا التشتيت من نحو سره وعلقت من ذاك الزمان إلى هنا بيتي بي دين فرال دي ديك تزور نيكاي واخ واي بكنزية باينا يالا ديبي بام نيكي تي كنزيام غا موي تي كوم كومام غا با موي واخي نيكون نا كوم كوم غو خامني كين خاموما ما بغي ني خاما فخلقت خلقا فتعرفت اليهم فبي عرفوني bàyyi na ca kanjee yàlla bi aw kuntu firi la aw kuntu wala boog ca kuntu ga balaa kanjee bi ndax kuntu moo jiitu kan kanjee kanzan kuntu kanzan kuntu firi ba ak la muy la muy junj yëpp ci ci la muy firi ci xisaabul jumal ci ñeenti téeméer yi ak eh, juróom eh, juróom ñaar fukk yooyu ñeenti xaqiqa ya muy taaw yi su la neexee nga ne aw kuntu waaye bi kanziyatin uukintu maa nga yoon ca kanziya uukintu ñoo ngi ma làq foofu ñoo ngi ma nëbb foofu qabla taarufin mooy qabla taarufil arwaahi fi alamil arwaahi yow ma alastu bi rabbikum balaa ruux yi di xamante ci mbindeefug ruux yi yàlla nga ma jël làq ma ca kanziyaam gu màgg bi bàyyi di wax ci kanziya googu bisaaka ba mu ne uukintu qabla taarufin mu ne taharraka min za sirri ma kaana saakina mu ne sirru rasulillah sekk rek xaqiqatul muhammadiya gi dafa daloon waaye ci cooba rek yàlla yàlla yëngal ko toj ko genné fa ruux yi ndax ruuxu yonent yàlla muhammad moy bàyyi ruuxu yépp comme ni yaram adam alayhi salam nekke bàyyu yaram yépp bàyyi nee yàlla yëngal sirru haqqatul muhammadiya bi ala hisabi qawlihi taala ala alam alam tara ila rabbika kayfa madda zilla xoolal yàlla nim tawé kër gi falaw shaa su yàlla sooboon la jalehu sakinan dana baye kër gi rek mu dal waye mom la neex mu taawi ko ba kër gi ko ba lenen génn ci ci jamono googa bàyyi nee ne ba ruuxu yi tojee tasaaroo ca aalamul arwaax yi ca mbindeefu maanaam eh, ca balaa balaa aalamul arwaax yi qabla taarufin sirru yi tasaaroo jëlee ko ci ruu ruuxu yi tasaaroo jëlee ko ci ruuxu yonent yàlla muhammad bàyyi nee ne foofa nag la sama ruuxu taalibe yi aju topp ci man ba bés ni ki tey kon ndeke relation bi démb foofu la tàmbalee balaa yàlla di sàkk asamaan balaa yàlla di sàkk suuf te su nekkee ne Abdul Qadir al Jazairi benn waliyu yàlla mën na taxaw di wax ak taalibeem ne ko fa anta bunayyi mus alastu bi rabbikum wasal waqtu xaqan dammahu lawhu wa satru yow sama taalibe gi fa anta yow bunayyi yow sama doom nga woon ñu ne kañ la mu ne mus alastu bi rabbikum depuis bay yàlla di wax alastu bi rabbikum ca mbindeefu ruuxu ya su nekkee ne Abdul Qadir al Jazairi mën na gis taalibeem bi ne ko yow sama doom nga woon depuis ca alamul arwaax yi xamoon naa sa ruuxu sa dana topp sama ruuxu pour dolleeku ci yàlla waaye wasal waxtu xaqan mu ne waxtu wii tey la ko dammahu satru dammahu lawhu wa satru eh, tey la ko mën a xalima man mën a bind ci kaw ci kaw àlluwa maanaam tey la mën a feeñ relation bi tey la mën a feeñ kon mën nañ xam ne ndekete Baye Niass moo raw Cheikh Abdul Qadir Jazairi kon moom ak taalibeem ya ndax euh, suhaylu ke euh, sahlu bnu abdillahi tasturi benn góor yàlla la daan na wax man daan naa gis sama taalibe yi bi ñu nekkee ca mbindeefu bu ruuxu ya maa ngi gis seeni ruuxu yi bañ wàcc fii ci àdduna maa ngi leen di gis ci seeni ndigg waajur yu góor yi ak seeni euh, biiru yaay yi ba nit ñëwee jokkoo ci man kon ndekete relation yi ñaar la ndax bàyyi daf koy def bàyyi bàyyiwul dara day wax relation zahir bi di wax relation baatin bi waaye nee na maa nga jógee ca xaybu su la neexee maa nga jóge ca alamul arwaahi su la neexee maa ngi jóge ca xadrak yàlla ga ka anni baridu sirri lil kulli qaazifan bi waqti hubudi misla waqti uruji bi waqti hubuti misla waqti uruji bàyyi ne ma ka anni dafa mel ni man baridu sirri courrier secret yàlla gi laa dafa mel ni yàlla ma yónni ma jóge ci pays bi yanu ay mbóot yu bari bi ma ñëwee bàyyi bi nga yo ñan nga jox mbóot yooyu ñu capté ko njëriñoo ko mu ne talaqaahu minni kullu ruuxin mujarradin safa waqtuhum wal amru gayru marij talaqaahu capté na ma sirru minni jëlee ko ci man kullu ruuxin bépp ruuxu mujarradin gu set ci lu dul yàlla ñu xam ne nekke muqaddam bàyyi ñasi kulluhum aswiyaau atqiyaau arwaahuhum mujarradatun an تلقت ذلك السر الذي أتى به الشيخ من جنب حضرة الله تبارك وتعالى تلقاه مني من كابتن روح غوغو جليكو من كل روح مجرد بيب روح غو خمنا دا ويت تي لودول يالا باين صفا وقتهم سما طالبي سما مقدمي صفا وقتهم سين وقت ستنا سلنا والامر مرمي غير مري غير مريجي جخاسول ñu gis ne baay radiyallahu anhu joxon nako benn tour ndax tur yu bari laa ko joxoon waaye bii tamit ci la bokk te tur bu am solo la dafa méngoog li nga xam ne moom la ñuy wax mooy muzakkil muzakkina muzakki bàyyi mooy kiy sellal al na ñay sellal nit ñi bàyyi dangeen ngeen daan dégg sax ci ci wax yi léeg-léeg ci gis naa risaala boo xam ne sax daf ko bind ci bindi loxoom ba muy tukki mu ne ci ci mbooloo mi am na ci koo xam ne sëriñam a ngi tukki waaye yéen seen sëriñ mooy Seydi si Cissé junju la ci wax ji ma bëgg a wax nii muzakkil muzakkina bàyyi day sellal ñii sellal ñii sellal nit ñi seen ruuxu yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla tànn pour ñu wommoon mbindeef mi jëmee leen ci yàlla nañ sellee ak nañ màggee maqama ci yàlla su bàyyi liggéeyam mooy mu sellal ñooñu seeni ruuxu ba ñu tuddee ko muzakkil muzakkina ba kenn ci gaa ñooñu nga xam ne ku sell la ci yàlla ragal yàlla am wilaaya am taqwa mokkal alxuraan nekk tiijaan gu set wetch nek setu yonti yàlla muhammad fo lal ci mbiru sel rek sel nako waye dafa ñëw ci baye ba muy ñëw indaale qasida mu ci wax wa nafsi laysa ya'lamu hina tubla haqiqata khubsiha illa alalimu walakinni usallimuha ilaykum fa tasfu inda zaka wa tastaqimu mu ne bàyyi ñas wa nafsi man sama bakkan laysa yaalamu kenn xamul hiina tubla suñ ko nattoo man sama suñ ko vérifié won xol ñaawteef yi ak lëndëm mi ak mbon yi ken xamul xaqiqata xubsiha deug degg sobeeg bakkan bi illa al alim ludul yàlla may alim waye nak amna chance ba ma la xamee yow bay walakinni usallimuha ilaykum ba muy ñëw ci bay première fois muy gisse ak bay ci la nganna yo qasida bi muy wax bay walakinni usallimuha ilaykum dana taxañ sama bakkan jebal la ko yow bay fa tasfu inda zaka wa tastaqimu bu baba nak wóor ma sama bakkan dana sell ca yàlla te dana jub te kooku wax loolu ku ko xam xam ne kenn gënu koo sell ci yàlla cheikhu qabilati aljajubiya nekkoon waliyu gu set wecc gu sell waaye nag beneen bi keneen keneen ku sell nitu yàlla waliyu yàlla bu baax doomu waliyu ba nga xam ne doy na ci ndamam rek ñu ne tariqa ya maamam moo ko indi fii ci Mauritanie ba ñu ñu mën cee jot moy cheikh khan ibnu mohammed tulba mo ñëw ci bay ne ko wa nafsi in hamamtu bi fiili xayrin tumaaniuni mawaaniuha siaabu khuzu bi yadi fa inni abdusu in kathirul ismi laysa lahu tiyab mu ne bay ñas wa nafsi man sama bakkan wa nafsi in hamamtu bi fi'li khairin suma yitte wo def lu bax sa bu ma bëggee def lu baax tumaaniuni mawaaniuha siaabu mu ne yaay tere bakkan mu def lu baax tere yu métti ya mooy ñoo may gaaru ba du ma mën a def lu baax te ki koy wax waliyu yàlla la kuy xettali mbindeef mi eh, seen diggante ak seeni borom la ki koy wax macha allah kuy gide ruuxu yi la jëm ci yàlla ku koy wax waliyu gu set wecc la koo xam ne wilaayam kem amu ci ñaar ñaar ki nga xam ne ki koy wax mooy xassaanu alfaydatil ibrahimiyati atijaniya waaye nee na Baye Niass man de sama bakkan saa bu ma bëggee jóg def lu baax rek mu bañ yakoy tere tere ko waye nak dakhaltu maqama ibrahima is kana dakhilha bisu illa yusab waye tey nak kontaan naa bég ndax yàlla wërsëgal na ma ñewna ci maqama ibrahim yeksina ci baye ñess te képp kuy jàmbat dara ci sa bakkan wala ci sa xol wala ci sa ruuxu wala so yeksé ci baye ñess lolu saafarawu na moo mu ne khuzu bi yadi baye ñess khuzu bi yadi téyel sama loxo fa inni abdu suin من دي جام جو دي سوفر نك ولي يالله ينون لن يمل يدنون بي خيرا ولا خير إنما رأوا حضرة المختار ستر جمالك من جام جو بلا لولو كو غي وحمو يفيرنا جام جو باخر نخ باي چا باي چوبا برحاما ها ما باي دي تدي بوبم عين القبائه واي شيخان نكو عين المدائه ويو كاي عين القبائه واي عين المدائه باي نيس نكو سما بكن بلو لم تكن عين القبائه laa takunu ay aynal madaayi su nekkuloon aynal xabaay yi du mën a nekk aynal madaayi eh, ñooñu ñooñu la bàyyi ñëw eh, pour eh, sellal leen seeni bakkan kon nga xam ne ndekete bàyyi macha allah dimension bi nga xam ne fa la nekk di liggéeyal yàlla dimension bu kawe la danaa wax ñan ñooy muqaddamu bàyyi ma dugg nag ci relation bi nga xam ne moo jaaroon diggante bàyyi ak muqaddamam yooyu da ngay gis benn muqaddam nga xamoon ko démb mu wonoon bàyyi ginnaaw lool bañ ko lool nga jékki-jékki benn bés rek mu melni ni dafa wëlbatiku comme càllweer mbëggeelu bàyyi ñees du nuroog la taxaraa yi daan wax in lam yakun sihran hawaaka fa innahu wasihra qudda min adimin wahid in lam yakun sihran hawaaka yow so mbegel su nekul njabar fa innahu khamal la sa mbegel bi wasihra mo am ak njabar quddaamin adimin wahidin dañ la xoti dañ leena xoti ci benn ci benn der ndax eh, nit day yew suba teel fekk amul ci kaw suuf ku gëna bañ bay ñess waye bala jant bi di so soko ko nga fekk ñi bëgg bay ñess moy sen rais moy sen president mo nga gis Ahmad Muhammad Mahmoud al Kabir bi muy ñëk daj ak bay neene amul kenn kum gëna mère ci kaw suuf ci bay ñess waye gis ngeen mo dem bay wax ak weer wi ndax weer wi mus naa gis ku mel ni Baay Ñas ci bay na ashiyatin wa duhaaha nga gis wa hal raayta ka misli cheikhi fii sifatin am hal raayta lahu ya badru min waa jooju ma mujj na bëgg Baay ba am na ku gaañu këram Baay ñëw pour jaale ko li Baay ñëw ci kër gi pour jaale ko bi Baay demee mu ne waroon na chaque jour am ku dee ci kër gi ngir Baay dugg fii di ma jaale te démb nee ne ba muy njëkk a dajeek Baay gisul ci kaw suuf ku ko gën a jéppi Baye Niass radiyallahu anhu moo tax ma ne man su may waxtaan ci ñooñu ak seen relation ci Baye damay tànn côté mbëggeel bi côté taalibe gi pour yàlla yokk ñu mbëggeel pour yàlla yokk ñu taalibe ndax damaa gis daal tey ci àdduna bi lépp loo yokk lu dul bëgg Cheikh Ibrahim ñas lépp loo yokk lu dul gën a mën a nekk taalibe daanaka yaa ngi taateel sa bopp moo tax ma jël côté mahabba gi mooy mbë mbëggeel gi ak côté sidqil iradati mooy taalibe gu mot gi cheikhaan yi ma ma doon wax sànq da da nga gis benn doomu aadama goo xam ne xamul cheikhaan yi nga jox ko woyu cheikhaan yi te fekk gisagul cheikhaan yi xamagu ko comme la daloon waaja ca Makka ba mu gisee achamsum badal bi leyli taaliuha saadu wa ma kaana chanu shams bi leyli an tabdu dafa laaj ndax ki lii ki ko wax moo ngi dund ñu ne ko moo ngi dund moo ngi sant yàlla mu ne yàlla bu ko yàlla bàyyi ci kaw suuf moom ci boppam journaliste bi ca Saoudia su tegul kii bët ci kaw suuf jaroo ko mu jël vol ñëw ba Nouakchott mu dem ba Barayna di seeti cheikhaani ngir benn xasida nga gis ndeke waa jooju nag ak mën a wëyam kaa xam ne nee nañ bàyyi sax ci boppam ne ko anta asharu min nii yaa ma gën a mën a wëy walakin na mamduhi akbaru min mamduhika mm. waaye ki may wëy nag moo gën a rëy ki ngay wëy ndax moom bàyyi rek lay wëy wëyul dul bàyyi waaye way yi mu way bàyyi ci wàllu mbëggeel boo ci jël rek fees na xolub taalibe mën na nekk essence am daanaka at déglu ko muy wax laytahu kaana muddata dahri kullan mawti an nali minhu ala xuduudi mu ne waroon na waroon na adduna yépp ba jeex bàyyi suy dëgg fan lay dëgg fekk moo ngi dëgg ci sama lex bi ana fekkee bàyyi maanaam sama lex bi moom mooy nekk dàllam ya muy doxee ci kaw suuf waroon na loolu am ba adduna jeex te gis nga wax ji li tax mu rëy ki ko wax du man du yow mais ki ko wax mooy Cheikhaani kan mooy yi ak màggaayam ak réyaayu maqaamam maamam moo indi tariqa bi fii doy na ndam xam nga kooku suñ jaaroon rek ci kanamu li war a am na am fekke ngeneelug yàlla duggul wala tasarrufaatug yàlla bàyyi moo waroon sol dàllam dem ba baray na tarbiyu ko waaye kooku alhamdulilah suñ la waxee ni mu ñëwee ci bàyyi ak xam-xamam ba mu indi woon yaakaar ne macha lu nekk njëlbeen ga soo demee ba ca mujjanteel gi day mujj reetaan ndax nee nañ moo ngi julleeg bàyyi ca koosi boobu xamagul dëgg-dëgg kuy bàyyi nekk faqih tak bàyyi xam na kii nag boroom xam-xam la kii nag waliyu la kii nag faqih la te fuqahaa yi ci wàllu zahir dañuy respecté zahir lool moo tax suñ mbokk yi ñooñu xam nga leen ñu sonn lool ndax zahir bi rek lañ yor xam maa ngi ñoo ngi ci xottu bi rek ba léegi yeeyaguñ gerte gi xamaguñ diw gi walaa yeku qishru diini xadda muhibbina ba li lubba lubba lubbi max da ataay seexaani ci xaal googu la toll woon koosi nag la fa xewoon yéen a ko gën a xam nee nañ am na fa ñoo xam suñu daan kàbbar sax ñas la ñuy kàbbaree waaw ñas du allahu akbar te xam nag dana la jaaxal yow mi nga xam ne yeggagoo foofu xamagoo ko waaye nag léeg-léeg wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi soo ko déggee da ngay wax loolu ku ko wax ku ko ku ko wax yow yéeféer nga waaw bul gaawtu ci takfir parce que wax yi toujours ay garaat la dégg-dégg ay garaat lañ yow ban garaat nga toll ci dégg-dégg moom miy wax wala nga gis mu def acte bi fan la toll ci maqaama yi xam nga loolu tamit soxla na li kulli ilmin rijalun fihim ladayhi majaalu man raamahu min siwaahum araahu minhu dalaali seexaan nag ba mu gisee gars yi ci biir julli gi ñuy onk di wax ñas ñii di wax ñii di wax ay gest yoo xam ne tàmm ngeen ko gis ci majaasi bi moom moom fas na yéene ne suñuy sëlmal rek muy dal ci bàyyi di ko wax na wax ak ndax lii du julli bàyyi nekkate moom kaamil la bàyyi xam na waa ji xam na lu muy war a bañ ci xolam ak lu muy war a nangu bàyyi préparé na euh, dafa mel ni xam na su waa ji suñu sëlmalee rek waa ji la muy war a wax waaye Cheikh Abdul Karim moo ma nettali histoire bi Cheikh Abdul Karim so ca xoore fonde wala yàlla ku baax nee ne dañoo sëlmal rek cheikhaan yi gaawtu ci bàyyi ne ko la lam yusallu ñii moom julliwuñ بينكو لو لم تلتفت إليهم لما عرفت أنهم ما سلوا بينكو سو لين جستول وان سخل سنكول وان تنيو دو خم نجولي وان كون يو عندك سخل بنكول تي مراقبة نكول تي مراقبة بلغي بلانغا زيزا كنين زيجي سبب لو لم تلتفت إليهم سو لين جستول وان تبير جولي جي تخم غدنيو تلنغا جستول تبير جولي لما عرفت أنهم ما سلوا كون دو خم جولي وان كون دنگلنا باي خل da nga bàyyi sa mu raaqaba te inna rabbaka kon saa bu ñu baamtoo nga baamtu xam nga dafa mel ni karawaas la goo xam ne mooy dalal waa ji nag xam ne ndekete waa ju ñuul ji am na lu xew mbir mi di départ muy dem ba mujjanteel gi moom Cheikhaan li mu wax wa matlabuna an la nazala bi hubbihi sukaara garamin la nafiqu min mu ne man Cheikhaan li may wër tey ci àdduna an la nafiqa bi hubbihi maanaam an la eh, sukaara sukaara garamin li ma bëgg mooy man Cheikhaani ma màndi ci sàngara bëgg Baay Ñas te duma ximmeeku ba abadan loolu rek laa bëgg kii kay xam nga ne moom ak rabbaani ñoo bokk bëgg-bëgg wa umniyatu rabbaani ma kaana kainan mahabbatu ibrahima wantahatil muna wa ah, ah, rabbaani te ngeen xam ko mu doon jàngal Medina Baye mu bokk ci ñu amoon ak Baye relation lettre yaa ngi fii diggante ak Baye ci bind loxo Baye Ñas alhamdulillah su nekkoon ne dañoo jël benn muqaddam rek wax relation yi ñu xam ci moom yépp ci bàyyi ak mu raasalaat yi lettre yi jaar seen diggante ak tamit lijaasa yi ak tamit alqaab yi ak bashair yi nga xam ne mooy jóge ci bàyyi di dem ci muqaddam bi daanaka kenn rek doyoon na parce que balaa ngaa jeexal euh, lettre yi jaar diggante bàyyi ñu sax cheikhaani rek ak lijaasa bi wala léeg-léeg ay lijaasa yi sax ndax am na ci muqaddamu bàyyi ñoo xam bàyyi lijaasa leen lu mat ñetti yoon Mishri Mouhamadul Mishri bàyyi lijaasal na ko lu man ñetti lijaasa Mouhamadul Mishri ca Maatamu la soo ci jëloon benn lijaasa rek bëgg ko firi eh, ak alqaab mooy grade yi nga xam ne moom lay bàyyi di solal Mishri ci benn lettre rek nga bëgg a jël benn benn lettre rek di ko firi loolu rek benn conférence ndax soo bëggoon eh, firi saani wujudi bàyyi ngi wax ak Mishri ne ko saani wujudi yaay sama ñaareelu am-am xam nga wax jooju seen bi wax ju wax gën a ko rëy ci ñaari kalima la. waye wallahi ëpp nañ ay conférence yaay sama ñaareelu am-am li bak la bo xam dafa melni sax serigne musu ko bak talibé ci ko suuf baye dafa dégg arab def te makkun bi zimaami lugha arabiyya ba lélé ni muy dajé waxam ni sax yow su nekké ne dégg arab da nga romb benn benn batu bàyyi nga taxaw fa lu yàgg nit ñi yaakaar ne yaa ngi dem fekk yaa ngi dem nag te demoo ndax baat bi dafa am lu mu yenu te dafa soxla ñu firi ko waaye ala kulli ñoom ñëpp ñoom ñëpp ci mbëggeel lañ doon wëndeelu ak ci nekk taalibe euh, cheikh cheikh euh, Mouhamadul Muxtaar ibn Mujtaba euh, ci ngandi la ci Nigéria ci Mauritanie yeggaguma sax ci Mauritanie tàmbaleeguma ci Sénégal d'abord damay wax rek ci cadre mbëggeel gi nga xam ne moom moo jaaroon diggante baay ak taalibe yi kii nii moo Mouhamadul Muxtaar ibn Mujtaba lan la wax baay دفني أنا العبد عبد الشيخ لا من قبيلة نشأت وصومي حبه وصلاتي من أنا العبد من ما يجام من أنا جام يا الله من عبد الشيخ جام بايس ما تخ ليلة نك دعك كريتيك نجت نك فك سوا خمون لامو يدند دين كو يرم واي دعك كريتيك جاي جس نافي بري ندون كريتيك السيد العارف بالله المجذوب شيخ عبد الله يجلان موتو ديون بوبام عبد برهامه man leen déedéet nangul leen ko ngànt rek su nekkee ne dégg nga wax ji dégg-dégg da nga dem ba fekk Abdou Barham daanaka mooy Abdullahi rek cheikhaani firi ne ko ci wa ahru fihil xamsi ci Barham ak juróom lettre yi juróom yi mais Mouhamad Mouhamad Mouhamadul Muxtaar ibn Mujtaba def ne anal abdu man jaam laa te gor la de te nee nañ setu yonent yàlla Mouhamad te borom xam-xam la shaair la aalim la ñu nekk yaay jaam ji xanaa kon waroo nekk lu dul jaamu yàlla wala boog su doon askan boppam pour mu nekk jaam dana xool koo xam ne du nit ku ñuul surtout ma dëkk ci Afrique fii ci ñi ñu ñuul ñi waaye mu ne Abdou Cheikh man jaamu Baay Ñas laa ñu ne ko ana sa qabila yow ban qabila nga dëkk xanaa am nga mbokk am nga njaboot ne laa min qabilatin nashaatu aw ma mbokk aw ma njaboot aw ma fu ma dëkk dëkk aw ma fu ma aw ma fu ma jóge salmaanul farisi moo daan wax abil islaamu la abali siwaahu isaftaxaru bi qaysin aw tamimi abil islam salmanul farisi jóge ba iran ñëw jokk ci yonent yàlla muhammad nekk nit ku ñuul moo naan wax man de abil islam l'islam mooy sama baay la abali si waahu awma baay guddul l'islam isaxtaxaru bi qaysin aw tamimi su nekkee ne ñit ñaa ngi ndamoo bani qaysin ak bani tamimin man yooyu yitteelu ma l'islam mooy sama baay kooku jamono jooju loolu la wax ji laaj ndax li kulli maqaamin in darayta maqaalatun فليس سواء عاقل وأخو مسي لكل مقام مقام bu nekk am na indirecte soo xamee am na maqaala mooy kaddu gay méngoog maqaama googu léeg-léeg da ngay waxtaan ak suñ benn mbokk waxaabiye yi mu ne la lii nii amul woon jamono yonent bi waaye lii diw diw waxu ko woon jamono yonent bi mais xanaa yow da nga fàtte wa kullu shay'in indahu bi miqdaarin lu nekk dafa am jamono waaw lu nekk yow nit ñi daan nañ déglu wëy xasaan daan na wëy yonent bi muy kontaan diko wax uhjuhum wa ruhul qudsi maaka est-ce jamono jojo xam xam aru génn na xam-xam ngay wéral wëy di juger ndax wëy bi bax na wala baaxul xam-xam bobu ñewul won te ñi ñaa doon wëy kon dekete xam-xam bobu jamono la doon xaar mu génn waye teewul won bala mo ñëw ñi ñaa wëy ndeke wa kullu shay'in indahu bi miqdaari lu nekk rek amna jamono yow su nekkoon ne jamono yonent bi yaangi ci l'islam yàlla may la nga am fanaawu moy jeex ci yàlla nga jakarlo abu jahli nga ne ko lépp yàlla la abu jahal dina la wax kon comme que lépp yàlla la bàyyi maag sama laata ak uzza ma continuer la may jaamu ndax loolu du jamono léegi nag jamono ga nga xam ne nag yegg si nañ ba fanaawu am place am fa la fanaawu génnee yonent bi saai sallam mënul woon wax xam-xamu maarifa billahi bu fés nit ñi di dund fanaaw comme ni ñu ko doon dundee jamono bàyyi ñes jamono yi du benn kon nit ñi dañuy jaxase haabil ak naabil duñ xam mos dem nañ ba yonent bi tere leen bàmmeel balaa moo nura kuy jaamu xërëm kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi maa leen tere woon ziyaare bàmmeel waaye léegi ala fa zuruha li annaha tuzakkirukum al axira beneen riwaay bi tuzakkirukum al mawta waaye léegi may naa leen ngeen koy ziyaare ndax iman bi dëgër na ràññee nañ lay yàlla ak lu yàlla léegi nag lu nekk dafa am jamono kii nii Mouhamadul Muxtaar ibnu Mujtaba def ne laa min qabilatin nashaatu bokk ci benn qabila mu wa saw koor gi may woor wa salaat yi ak julli gu may julli yépp hubbuhu bëgg bàyyi la rek waaw xam nga wax bi comme que moom xam na yàlla te jàng na réerul gis nga ku jàng xam su waxee wax boo xam ne day gëlëmal leneen day gaaw dabaatal bàyyi sax ci lettre day wax wax ju rëy ba nga ne bàyyi xanaa da ngay woote ne yow kon yow yaa yàlla nga dégg mu ne laa hawla wala quwwata illa billah walaysa bi haatal kalaami sukrun wala xaybatun bal kalaamu naasihin sadran isnin sahih ndax daa jàng xam na ne yow mën ngaa sentir leneen te bëggul loolu du loolu la bëgg du loolu la yéene moo tax Mouhamadul Muxtaar ibnu Mujtaba dafa dabaatal ne ah wa abudu rabbillah lallaata laa wala sujudiya lil uzza wala li manaati wa abudu nag man nag maa ngi jaamu rabbi sama borom allah maa ngi jaamu yàlla rak jaamu yàlla la kom ni ngay jullee noonu lay jullee ni ngay wooree noonu laay woore li ma wax beneen maqaama la soo ko bëggee jaaral fa ma jaar pour nga yegg fa mhm. mbir mi dafa soxla teggin dama wax bis mbir mi dafa soxla teggin ku amul teggin do mën dem fenn ndax yonent yàlla musa tout sam gam am ci khadir lu touti lam am ci khadir xam ngeen lu ko ko may moy teggin gam jitalon ci laaj ga moy hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda def waxuko waxuko dama ñëw pour top la nga xamal ma la yàlla xamal de déedéet def ko ne hal est-ce que est-ce que mën naa laa topp xoolal lii jox na ko teggin ba ñëwul ne ko sax yoo xam nga léeg-léeg da ngay ñëw ci sëriñ bi ne damaa bëgg a jël tariq damaa bëgg a tarbiyu Moussa deful noonu def ko ne est-ce que mën naa ñëw jël tariqa bi est-ce que mën naa jël tariqa bi bokkul ak damaa ñëw pour jël tariqa jox ma tariqa bi déedéet hal istifham boobu denc na ci adab maqaama yu kowe yoo xam ne moo tax Moussa ànd ak Xadir malgré que ci ginnaaw gi am na yu xew yu bëri moo mu ne ngir jox xadara bi teggin gi rek ci sharia def ne wa abudu rabbillaha lan laata laa wala sujudiya lil uzza wala li manaati maa ngi jaamu yàlla man du ma jaamu laata du ma lu may sujud nekkul pour uzza moo tax sujudul ma xërëm li ma wax ne man jaamu baay la firiwul ne damay sujudal baay wala damay jaamu baay nii la mbir mi doxee mahabba la ak sidqu ak maarifatu diggante Maulana Cheikh Abu Bakar Nyas euh, ñong koy xaar fele ci Dakar vraiment jox nañu lu reuy lu reuy ci temps nañ ko jox micro bi rek mu mu ñaanal ñu leen ñaan ah, cheikh neena Cheikh mam Alaaji Muntaka mo ngi fi inshallah allah danañu defal ñaan euh, fi nihayatul mafat inshallah allah jazakumullahu khairan yal nañ fi yàgg di tew ci barki alquran ci daraja yenen ci gunge leen sëriñ bi incha allah ñu daal di ci mawdu bi tàmbalee guñ nag alaaka yi mooy relation yi jaar diggante Baay Ñas muqaddam yi tafaddal euh, ñoo ngi ñoo ngi wax ne relation yi diggante Baye Niass ak muqaddam yi euh, dama bëggoon jël ñett ci senegal ak ñett ci Mauritanie euh, su nekkee ne waxtu bi may nañu ko bëggoon naa yegg ci Nigéria waaye yaakaaruma moom mën a nekk waaye euh, damay wax taalibe xam nga suñ nee saxaaba yi saxaaba yi mooy saxaaba yonent waaye saxaaba yonent firiwul lu dul taalibe yonent taalibe yonent la firi saxaaba yi ay taalibe lañ mais saxaaba baatu saxaaba garaat la gu koy goo xam ne ku dul ñoom amoo ko moo tax ñu jox leen baat boobu waaye saxaaba firiwul lu dul taalibe wax naa ci araab bi sànq euh, ni ñuy njëriñoo toujours ci waxtaan ci saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di njëriñoo noonu tamit waxtaan ci Cheikh Tidiane ak saxaaba mi suñ waxtaanee ci bàyyi ak ñam àndoon euh, noonu lañuy ñuy njëriñoo ndax soo xoolee euh, xaytu bi benn la Ah, taxawaay bi yonent bi taxawee woon di woote ci yàlla ak na ko gaa yi ñëwoon gàttandoo ànd ak moom di liggéey ci di liggéey ci yàlla Cheikh Tidiane tam bi mu ñëwee noonu la xaytu bi noonu la rek ba bàyyi ñes tamit bi mu ñëwee te soo xoolee dëggu gi dëggu gi surtout dëggu gi ak njàmbaar gi ak woogu gi te kenn ku nekk am na point boo teg muqaddam yi laa wax muqaddam yi nga xam dañoo ànd ak nag bàyyi kenn ku nekk balaa ngaa ñëw ci bàyyi am na point boo tegoon sa kanam di ko wër ba nga dajeeg bàyyi fekk la nga doon war mooy bàyyi luy point boobu ak loo fekk ci bàyyi beneen bi dëggu bi dëggu bi laa bëgg a wax sahaaba yi kenn ku nekk xam nañ niñ meloon ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam da ngay jël benn baatu sahaaba rek mu jox la lu xam ne moom lay dund ci xolam digganteem ak yontu yàlla muhammad jëlal qays nu saad qays ibnu saadin ca madinatu yontu yàlla muhammad ñoo ngi jóg di xeex yi mu jàkkaarloog yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam من يا رسول الله يا yonent والله لو أمرتنا أن نخيل nuxiidaha لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد من زي يمن لفعلنا فسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وضع ما شئت والذي نفسي بيده للذي أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت من ينت يالله محمد سوني دجالون أن ندرب أن نخيد أهل بحار كن عندك سن جلمي أك سن فسي نخوس تيجي تقولا دم خير جهاد لا أخذناها دنا ندفلول ولو أمرتنا سوني دجالون يو ينت بي أن ندرب أكبادها إلى برك الغماد من زي من ندور سني جلم بدور رسي تقص جناو ندم ببرك الغماد زي زي يمن تي يمن la faal naa wallahi danañ ko def jaral nga ñu ko mu ne yonent bi saalim man shiita buur yi bëri nañ ci àdduna bi buur bu la neex na nga maslaanteeg moom nekk ak moom xarit wa aadi man shiita buur bu la neex noonal ak moom xeex ak moom ñoo ngi sa ginnaaw fa xuz min amwalina ma tasha jëlal ci suñu alal loo bëgg wa daa ma tasha mu ne loo bëgg tamit loo loo bëgg ci suñu alal na nga nag ñu ko bàyyee waaye ñoo ngi la yëgal ne li nga jël ci suñu alal moo ñu gënal li nga bàyyi soo xoolee loolu nga xool kenn fii ci waa Ndofane Seydi Oumar Touré nekkoon fii euh, jamono nekk taalibe Baye Baye ñëw ziyaare ji ko mu dem ca tool ya won Baye Niass hmm, naaf naafu gerte maa ngi nuyu xalifa bi di nuyu mbokki mboolem taalibe yi fii wan ko naafu gerte di ko wax ne naaf bii de yow laa ko fii dencaloon Baye xool am na beneen naaf bu nekk ci wetam te booboo gën a tuuti bàyyi yërëm ko ne ko déet bii daa rëy bàyyil ma jël bu ndaw bii Seydi Oumar Touré ne ko kon ñaar yëpp yaa ko moom ndax bii maa la ko may bee yaa ko may sa bopp kon nga xam ne ndekete wa xuz min amwalina ma tasha lal wallazi nafsi bi yadihi lallazi axasta min amwalina ahabu ilayna mimma tarakta maanaa gaa ngi noonu mooy saaba yi lañ doon dund ci yonent bi seeni alal ña nekkoon ak bàyyi loolu rek lañ yéene bàyyi eh, maanaam eh, saxaaba yi ñooy jëmm moo tax léeg-léeg nga gis bàyyi di wax sax bii

waye nekul ahbab yeb ñoy atba atba moy ki bëgg bay ba pare top bay motax koku la muy am dafa reuy parce que koku da top bay da appliquer ñom ñépp nak muqaddam yu mag ñi yàlla def leena ar ci yu bon te bay mo leen tahsinu ak fuñ mëna nek astawdiullah ahbabi yaxuutuhumu bihim sayyidi muhammad darame xaadimu cheikh hasan dem hayakumullah zadaka allahu tawfiqan wa najahan انت معنا wa nahnu maakum insha allah wa anta minna wa nahnu minkum nasalu llah tabaraka wa taala fi amaqi qalbina an yaxfazaka wa yuinaka wa yuraqika bi himmati cheikh ñu gis ndekete eh, astawdiu llaha ahbabi yahutuhumu bi hifdihi haysuma kaanu badaw wa qaraw bàyyi moo ko ñaan astawdiu llaha maa ngi dénk yàlla ahbabi sama taalibe yi yahutuhumu bi hifdihi yal na leen léem ci muslukaayam حيثما كانوا فن من نك في بكنو بداو وقراو بداو مو خام نيوغي تي باديه بي وقراو ولا بوك نيوغي تي دكوي نوي باي نيانال لا ليمونا طالبين بي يالا بولين دارا جو واخنا تي بنن بيتي حسنت احبابي وكل نسلي ومن يحبني وكل اهلي بالذكر والاسماء والصفات يعصمهم من سائر الحنات باي نين حسنت احبابي mooy tax taxsin naa protéger naa sama taalibe yi protéger naa leen la nas li ak sama njaboot yëpp seet yi ñoom maam alaaji ñoom sëñ Aboubacar wa kulla nasli lépp lu génn ci bàyyi bàyyi nee ne aar na ko wa man yuhibbu ni ak képp ku ma bëgg wa kulla ahli ak sama bépp njaboot bàyyi ne maa ngi leen di protéger bi zikri ci alxuraan wal asmaa ak ci tur yàlla yi wa sifaati ak ci melo yàlla yi yaasimum yàlla na leen yàlla aar min saairil xanaat yi mboolem ñaawteef te ñoom ñëpp kenn ku nekk ci euh, ngand yooyu nga xam ne ñoom ñooy muqaddamu baay yu mag yi kenn ku nekk ci ñoom borom yitte gu kawe nga ndax baay radiyallahu anhu borom yitte gu kawe la te kat wa fayduha bi hasabil matbu'i la taabiun mahfudun aw marfu mu ne faydu bi bi hasabil matbu'i mu ne diggante taalibe gi sëriñ bi ndollal gay taalibe gi di dollee ko ca yàlla ak jikko ya muy am jëlee ko ci sëriñam bi hasabil mat bu yi moo ngi mel ni sëriñ bi rek su nekkee ne jikko yi sëriñ bi daa kowe taalibe bi su jikko yu kowe su nekkee ne maqaama sëriñ bi daa kowe taalibe gi su toppee tànki sëriñ yi maqaama gi kowe ba fay duhaa bi hasabil mat bu yi laa taalibe bi duñ xool taalibe bi li ñuy xool mooy sëriñ bi moo tax bañ xoolee bàyyi yi di kowe lool muy xol wali yàlla yi di mébét am maqaama gu raw gañuy raw gañuy am alam tu'tini jili fawqa muradihi bila kulfatin izjitahu bil bashari alam tursil khatma tijaniya khatiman wa a'laytahu fawqa shuyukh al fa hallaka fi barhama duna taahulin manaalun fa yumsi adduhu bilxanaasiri bàyyi nee na ñes nee yow yàlla alam alam alam tu'ti li Cheikh Abdul Qadir Jeylaani borom maqaama yu kawe yooyu xanaa du yaa ko mayoon fawqa muraadihi la passé lam na moon bilaa kulfatin te sonn ci lool ndax depuis ba mu nekkee ndaw la commencé woon ay xar baax ak ay kéemaan yoo xam ne tàmm ñu ko woon gis sax ci xale ah alam tursilil xatma tijaniya xanaa yow yàlla Cheikh Ahmada Tijani xanaa du yaa ko yónnee alam tursilil xatma tijaniya du yaa ko yëkkati xaati man mu nekk xaati xaatim mu nekk xatmul wilaaya fi l ummati muhammadiya wa alaytahu nga kowel ko fawqa shuyuuxil akaabiri mboolem sëriñ bu kowe woon ci kaw suuf min ladun aadama dépp ca jamono yam ci aadama waliyu gu mag yaa ngi ci ron tànk Cheikh Ahmad Tijaani xanaa yow yaa may loolu cheikh léegi nag man ñëw naa man bàyyi fa hal laka fi barahama duna taahulin manaalul hal booba Moussa jiitaloon ca adabiya bi ca teggin ba ba mu am lam am boobu la bàyyi jiital fii fa hal laka fi barahama fii sax bàyyi waxul rek kon nag man tamit may ma waaye est-ce mën naa nekk nga jox baraham mii duuna ta ahulin doonte yelloowu ko sax te bàyyi yelloo na ko dafa fa gaa yi jaar ba am lañ am bàyyi jaar na fa gën a rëy foofu kon war naa am li gën a rëy fa hab lii maqaaman a taqaasara duunahu ah, akaabiru aqtaabil fuhuli min alwara yow yàlla may ma ma maqaaman maqaama boo xam ne loolu yitte gu kawe la yitte gu kawe bu di laay wax te macha allah wali yàlla yi koo xool rek ci wàllu yitte da nga gis mu tëgg ay bayt yoo xam ne soo ko déggee rek da ngay xam ne ki yitte bu kawe la woon wa ma ana radin annani waati u sara wali himmatun la tartadi ufqa maqada nga ko kenn gënu koo kawe maqaam limaam chafa yi wa ma wa ma ana radin man kontaanuma annani waati u sara man maa ngi dox ci kaw suuf mu ne li may dox ci kaw suuf nii taxul ma kontaan da wali himmatu ndax yor naa yitte koo xam ne la tartadil ufqa maqada soo jëloon biddiw yi def ko muy toogukaay muy sées du tax ma kontaan kon li may dox ci kaw suuf nii waruma cee kontaan maanaam li muy dox ci kaw suuf béggu ci dara ndax soo jëloon biddiw yi teg ko muy sées mu toog ci du tax mu kontaan yitteem passé na foofu ayyama hallin artaqi ayyama qaamin abtari limaam shairu dunia abu tayib almutanabi hunaka abu tayib hafiduhu xalfi Euh, aw amami euh, sayid ali ali ba aya mahallin artaqi hmm? ah, ban maqaamal ban ban place tey war a ñëw ah, ndax sama yitte gu kawe bàyyi ñes ci yitte gu googu an eh, eh, ni maqaaman yàlla may ma maqaama goo xam ne xat taqaasara duunahu gàtt na pour yegg ci maqaama googu jamiu fuhulin fi zamani wa ma yaati xoolal loolu mboolem ngand yàlla yi fii zamani ci sama jamono góor yàlla yi ma bokkal di dund tey wa maa yaati ak bépp góor yàlla su la neexee ne ma man yaati sax fii zamani wa maa yaati ak lépp luy ñëw ba bés pencum yàlla may ma makaama goo xam ne góor yàlla yi duñ ci musa yegg ba abadan bàyyi mayul benn góor yàlla ginnaaw saxaaba yi muy jaar diggante ak yonti yàlla muhammad lu dul Cheikhu Tijaani bàyyi ko maanaam góoru yàlla yi li ñuy bëri bëri nañ lool waaye ñoom ñëpp maa ngi leen dugal ci sama poche kenn rek laa may ngant te waasita bee tax demoon naa ba jamono sax di xool lan la ma Cheikhu Tidiane yi génne waaye ma xalaat fekk mooy sama wasila kon ndeke laysa ma qad yuqaalu fiihi bi mughnin wallazi laa yuqaalu laysa yuqaalu ma ne loolu foofu point boobu bokk na ci wallazi laa yuqaalu laysa yuqaalu teggin googu cheikhaan yi joxe foofu loolu teggin xaafis la ndax moom xaafis yu la mu ne mën naa wax lu nekk ci moom waaye du doy waaye lu nit mënul wax tamit mënu koo wax ndekete yoo am na fa lu nit mënul wax te dañ ko war a wax te nit manu koo wax moom de mënu koo wax ndax rus na koo wax ndax moom naka jekk euh, xaafas yu la soo xoolee wax bi danga nga comprendre mbir mi lan lay dox bàyyi dafa junju ak teggin gu mat sëkk damaa gis Cheikhu Tidiane mooy sama wasila ma xam ne foofu la ma génnee waaye ku dul kooku kooku rek la bàyyi seppi la jëlee ko ca yonti yàlla Muhammad walla sax ba aadama lu dul yonent yi bàyyam ko dugal ci poosam ci ndigalu bàyyi lay dox yaa ngi dégg loolu nag bàyyi nee ne mayuma kenn sax bés pencum yàlla muy jaar sama diggante ak yonent yàlla Muhammad ku dul Cheikhu Tidiane mayuma benn taalibe benn taalibe di jaar diggante sama taalibe yi ak Cheikhu Tidiane bésu pencum yàlla bàyyi ne loolu bu leen yaakaar ne daa sori maa ngi xool loolu di ko gis comme ni may gisee sama rëdd loxo yi nga gis nekk te yitte gi daa kowe lool te moo tax nag taalibe yépp ñëw am yitte yu yooyu ñoom ñépp macha allah dañoo texe wa ahlu zamani kulluhum faasa siwa man qala nahji asira hawa'i bàyyi neen man sahibani muradun li zaka naalu kullama araadu lépp day firi ndekete ñi ñu war a waxtaanee seen relation ak Baye ñoom ñëpp dañoo texe ndax Baye nee laqad faasa ahbabi janaw garsa hubbihim mata qila barhamul xadimul munafizu Baye neen tamit ki ànd ak man nekkatoo taalibe yow sëriñ nga mooy firi ndekete ñoom ñëpp ay serigne lañ ñom ñep dañoo tex ñom ñep dañoo koy ay yitte ñom ñep dañoo dëggu setal dal ashab rasulillah melo bo gis ci melo yi ashaabi rasulillahi nga xamne gis muqaddamu a cheikh kibaar muqaddami cheikh te oustaz mohammed Kebe dafa melni mom sax ci unwan bi ci mawdu bi def ne kibaaru muqaddami cheikh non non la ñewé moy alaqatu cheikh ibrahim bi kibari muqaddamihi kibaari muqaddami xam nga kibaaru muqaddami mbir la tamit goo xam suñ ko tojee yaatu na lool mooy muqaddamam yu mag yi te dañoo ëppante dañoo gënante ñoom ñëpp yemuñ waaw léegi nag relation boobu ngeen may ma ci ma jël ci Sénégal fii ñett ma tàmbalee ki nga xam ne mooy tàmbalukaay gi ndax ki njëkk a tarbi am fatxu ci Baye ñas mooy Serigne Aboubacar ñas mooy bakrul faydati wa awwalu man وأول من رمته أو رماه مدفع الفيدة أتجانية ومدفع الشيخ أعني الفيض من بعد يرمي متى فاض كل صاحب في الغرق تاو تاو فيد بكان لا تاو بي تاو بي كينجك يك يالا بي برد منك نقطة الانطلاق أبو خمني دو تخواتي بأبدا كينجك صوب أم فناو أم فتح يك يالا دي باني خوتي يالا بلا كن موي أبو بكرين أبو بكر مو مولا باي وخني أبو بكر يو يو يا دونو سكر أبو بكرين على تباعد المرتبة تيني دوما يونانت يودو أبو بكرين وايا مبود من يكون تي يونانت في مونغشي من مبود من يكون تي أبو بكرين مونغشي يو يو يا سما جيتوك تالبي كم ني أبو بكرين نكيون جيتوك أصحاب رسول الله لي مير موي يونانت بي ما تحت قبة السماء بعد الأنبياء أفضل من أبي بكرين رنبارو أسمان بكين جنو في أبو بكرين جناو يونانتي يومينك على رحم الإله أخي وهبي أبا بكر فتاي ورأس صحبي خول البيت بي دافكو دان مارسي على رحم الإله يالا يالا يرم أخي سما فرير وهبي تي يانت يالا محمد ناني أبو بكر أنت أخي دا دافكو نك دما بغ nga mayma يا دافكو أبو بكر مونا يونت بي أنت أخي مونكو نعم أخوك في الدين دما بغ nga mayma سودوم عائشة مونكو أيو سما فرير nga مونكو وا سما فرير nga سي دينه كون أخوة غاني نون ديغنت يونت يالا محمد أك أبو بكر ala rahimal ilahu axi wa hibbi sama soppee ababacrin mooy Serigne mbay Niass Serigne mbay Niass euh, moo njëkk a tarbiyu yegg yàlla te su ngeen ma mayoon sax danaa leen wax ñeen fukki doomu aadama ñi njëkk a yegg yàlla tarbiyu ci faydu ji waaw ñeen fukk yi soo demee ci iqdul kiram euh, jazallahu al ax al ustaz ibrahim thiam kulla xayrin faqad aataani hadihi al manzuma ar raia allati nazamaha aalimaani jalilaani shaa'iraani alaahuma Seyd Aboubacar Niass wa Seyd Ousmane Ndiaye ñaar ñi def nañ benn xasida ñu ciy woy ñeen fukki doomu aadama yi njëkk a yegg yàlla ñu njëkk a tarbiyu eh, jëlee ko nag ci Aboubacrin al musanna dañuy barkeeloo seen tur rek jàll ndax Baye dafa nuroog yonent bi ci ay point bokk na ci ne Seydina Aboubacrin moo njëkk a dugg ci lislaam waxuma Xadijatu de yeggaguma foofu ndax diggante ma xadijatu kan moo njëkk a dugg waaye ala kullin yonent bi saa sallam nee ne maa daawtu ahadan ila allahi illa wa taraddada illa ma kaana min ibni abi quhafata fa innahu ma akama wa ma taraddada mosumaa woo nit ci yàlla dul mu xalaat déngi déngi xool ba si yàgg doog a lu dul abu bakri mu ne ba ma ko woowee ci yàlla carax la def dafa ñëw rek dugg law wuzina imaanu abi bakrin bi imaani ahli l ard la rajaha abu bakrin suñ peese won ngëm yàlla gi Abubakrin am ak ngëm yàlla mbinde mbindeefu yàlla gi yépp mbolem sahaba yi ak ñi ñëw seen ginnaw suñ jëlé seen ngëm yàlla peese ko ci benn balance peese ngeen ngëm yàlla Abubakrin la raja habib Abubakrin ngëm yàlla Abubakrin mooy gën a diis moo tax ndekete Abubakrin moo njëkk a dugg ci l'islam mo ñëk nangu mom moy moy sanis nay ni fi fi ghar moy sanis nay ni yaangi fi hijrati sanis nay ni fi rawdati moy sanis nay ni fi salati moy lépp aw bakrin mii Serigne Mbaye Niass mii eh, yàlla may na ko maqaama gu rëy waaw ndax moom moo njëkk lii histoire def koy nettali ba bés pencum yàlla moo njëkka a bi yegg yàlla Ousmane Ndiaye moo ci tegu Cheikh Ibra Fall tegu ci Oumar Touré tegu ci Alhaji Lamine Soxna Cheikh Anta Gueye Mouhamadul Hadi Niass Cheikh Moussa Diop Cheikh Aliou Cissé Cheikh Mouhamadou Chafi Niass Cheikh Abdoul Karim Fall Cheikh Jabel Diouf Cheikh mbay Gueye Cheikh Alhaji Baba Thiam Cheikh Serigne Ibra Touré Cheikh Abdou cheikh Adama Top cheikh Ahmad Souley Thiam cheikh Tafsir Malick Sow cheikh Modou Sine Ngebane cheikh Baye Adama Thiam cheikh Alhaji Oumy Niass cheikh Ahmad Tidiane Biteye cheikh Mouhamad Konté cheikh Modou Abdoulaye Niass cheikh Mahmoud Diop. cheikh Umar Tunkara cheikh Jabel Thiam cheikh Tafsir Mouhamad Touré cheikh Umar Lo cheikh Ousmane Asta Koura Thiam cheikh Alhaji Ndate Thiam cheikh Moustapha Ganna Thiam cheikh Umar Fati Diallo Niass cheikh Umar Mati Seck cheikh Malick cheikh Baba Asta Niass cheikh Ousmane Niass cheikh Habib Ndoye cheikh Oumar Malle Thiam mooy quarantième bi. Oumar nag bu leen fàtte Seydina Oumar ba mu duggee ci lislaam jullit ñi 39 lañ Seydina Oumar mooy quarantième bi Seydina Oumar Malle Thiam mooy quarantième fii Seydina Oumar ba mu duggee ci lislaam yàlla na yonent bi yaa ayyuhan nabiyyu hasbuka allahu wa man ittabaaka minal mu'minin يا أيها النبي بس نكتة يو ينتبي حسبك الله يا الله دعينا لا ومن تبعك من المؤمنين أكيد بكو خم نتوبنا لا تجلدني سين باي ما لشامي يا كنا خم جل كو باي مال لشام آها موي مجزو بو بنا خم ندفع من لمن بام سيء بام نورو دفع من لخم يقول بام خم يخم يقول بجن أدل ما شاء الله آه، كي سي ينتبي باي دفع نورو باي باي تدفع نورو باي نورو بو خم ند Eh, du nuru nurulu eh, nuro ak nuru nurulu dafa am nit man nga ka nuru nurulu nga nuru ak mom waye nit man nga xey rek nuru ak mom te fekke nuru nurulu ak mom sax amna yo xamne so nuru nuru won ak nit ki junni at do ko musa am ci mom li ni pour nga yow nga am ki ñëk tarbi ci ki ñëk japp ci yow tuddu bakkar te mu wër nek borom xam xam yor maqam bakkar 40 bi ñew tuddu omar yor maqam sayyidina omar gam yoron mbir mi du yow ya koy defal sa bop yalla mo koy def am na yoo xam ne nag soo nuru nuruloo rek nga am ko ndax fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ndax benn waaye gis naa ko ndeysaan daa bëgg bàyyi mu déggoon bàyyi su jullee fajar day jël sëru seru waksi euh, waxi waxi yi seru waxi yi lay bàyyi di jël sàngoo ko daal di daal di tëdd ci lal bi noonu néeg bi ñaari bunt la nit ñi ñëw di ko nuyu ku duggee ci néeg bi ne asalaamaaleykum bàyyi ne waa kookaan la waaleykum salaam après jàll moom tamit ngir li mu bëgg bàyyi su jullee fajar rek xëcc benn waxeem daal di ko sangoo ngegenaayu noonu mu wax gaa yi nañ duggee ci bunt bi nuyu ko jaar ci bunt bi ni su duggee rek na salaamaaleykum kooku ah maaleykum salaam jàllal fatashabahu loolu am na solo lool baax na ndax dafa bëgg bàyyi moo tax muy nuru nuru lu bàyyi fatashabahu in lam takunu mislahum inna tashabuha bil kirami falaahu ndax léeg-léeg nga gis bàyyi ci yenn photom yi mu mu mu mu dëngal baat bi ne nii yaa ngi dégg de nga gis tamit gis naa benn waaye gu am xorom la ndeysaan moom tamit su kaala woo comme kaala baay bi noonu foo ko fekk rek day dëngal baat bi rek ne nii ndeysaan mais loolu yëpp am na solo nuru nuru la yooyu man nga nuru nuru lu am ko waaye est ce que man ngaa nuru nuru lu yonent bi benn am médina gu mel ni médina yonent bi sararaha sirru madinatin nabi xabasaha fii bila tarayub est-ce que mën ngaa nuru nurulug yonent yi ba am Aboubacar mi nga xam ne moo njëkk ñëw ci yow jàpp am fanaaw am fatku ci yàlla te nekk abu Aboubacar bi nga xam ne su kanamee danaa wax li bàyyi wax ci moom ak lim wax ci bàyyi nit koo xam ne dafa toog ne ruuxam moo ngi wax ak sirroom mun naa jaat bay na ruuxihi wa sirrihi man maa gis bind yi ci yaa ngi dégg de ci kannaas Seydi Cheikh Abdoulahi Dia Serigne Mbaye Niass mu ne ruuxam a ngi deeyoo bakkanam bayt yi niñ toll noonu la dundam yi toll te boobu ba mu koy woy moom xam nga moo dund mais bayt yi niñ toll noonu la at yi toll ndeysaan bàyyi bi mu gisee xasida bi nga xam ne am sëriñ gu mat gu am kas ku rek am solo bàyyi yëngal bopp bi ne ah su ma sañoon bayt yi ëpp nii ndekete wax la yëguñu ko ndekete bàyyi xam na ne bayt yi niñ noonu lay dundam di toll bàyyi ne su ma sañoon bayt ëpp nii eh, après boobu soxla na ngeen ñi ñi gestu ko fekk ndekete ruuxam bi ak bakkanam bi ñoo ngi wax wax yu am solo ñoo ngi deeyoo ci ci mbiru yàlla waa jooju Abu Bakr nga am ku mel noonu mu njëkk a ñëw ci yow Umar Baye Malle Thiam naka noonu te tamit nuru nurulu yi nuru nurulu yi yi baay bàyyi baay nuroog euh, yonent bi saa sallam baay am na Abu Bakrin du Abu Bakr kese baay am na Umar du Umar kese baay am na Ousmane du Ousmane kese hmm? baay am na yaa ngi dégg de Aliyu Aliyu Cissé mi nga xam ne bokk na ci ñi ma tànn pour ñu waxtaanee leen di alaaqaam diggante ak Cheikh Ibrahim Niass ndax ñetti laa tànn fii ci Sénégal Seydi Aboubacar ñas ak Seydi Ali Cissé ak Seydi Cheikh Hassan Deme Cheikh Hassan Deme nag nee nañ ko ràcc jëmale ca kanam ku ràcc jëmale sa kanam comme que man moo ma jox wirdu te amoon na relation ak Baye kon suñ ma waxee waxtaanal relation Baye ak kibaarul muqaddamina yi balaa maa sori jël sama bos boole ko ci moo tax nag Cheikh Cheikh Seydi Ali Cissé xam ngeen Ali Cissé moom mooy Ali Cissé balaa ñëw yegg ci moom jeexalaguma ci Seydi Aboubacrin ndax bëgg naa wax li Baye wax ci moom Seydi Aboubacrin bëgg naa wax li Baye wax ci moom pour dama doon wax rek point yi nga xam ne moom la Baye nuróoweeg yonent te yii nii yuñ mën a waxtaanee ci guddi gi kese la def naa benn muhaadara yaakaar naa Mermoz la woon yaa ngi dégg de ci point yi nga xam ne yooyu la Baye nuróog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te nekk ku ko dégg xam baay xam yonent bi rek nga xam ne lii tawfiq la gu yàlla defal baay baay am na am na Seydi Ali Cissé Ali Cissé moomu ni Seydina Ali meloon ci yonent yàlla Muhammad noonu la Seydi Ali Cissé mel ci moom soxlawul nii guddal ndax dañoo bëgg a yegg ci Seydi Ali Cissé kii nii Seydi Aboubacar Aboubacar Niass Baye Niass moo ngi wax ci moom Baye Niass bind na ci moom def وأمنا فنن فو وقت ما ممن بهم جيد زمان يفخروا من آه، أعني أبا بكر سليل والدي يعلم ذا من لم يكن بالحاسد أمنا تي آه، تي جمعنا جنيا وخمنا مي جمعنا جنيا فلين دندام تكاتا بوكونا تي سرين بينيس من أعني لما جبلو أبا بكر سليل والدي كي خمسة ما دوامو بايلا آه، يعلم ذا خمنا لي من لم يكن بالحاسد كيف بكون إنيانو xamna ne Serigne Baye Niass bokku na ci ñi jamono gi ci ndam Baye Niass bind na ci mom lettre diko ne fa ila waladi wa qurrati ayni man sara fihi sirru abi bakr lam yuzini qat ibni ruhi wa habibi qalbi mune fa ila waladi mune lettre ba nga jëm ci sama doom ko xamne yena bokku a ngana ko fa ila waladi te mu nanguko amna fu ngeen jaar moy ndekete sama doomu ruhu la qurrati ay nii ka nga xam ne saa boo ko gisee sama bët sedd ma sama xol kontaan man saraa fii sirru abi bakrin li bàyyi ko wax de mooy ka nga xam ne secret abu bakrin rañaan na ci moom maanaam su ma doon yonant bi mooy sama abu bakrin lam yusini qat musuma lor mu ne Baye Niass nee ne abu bakrin Serigne Baye Niass musul lor Baye lu jara bàyyi xel la su nekkee ne am na ko musa lor Baye Serigne Baye Niass moom musul lor sama doomi ruuhu wa habibi qalbi li wax la bayne atani ataani hawaahu qabla an arifa al hawa fa saadafa qalban khaliyan fa tamakkana ataani dikk na ci man hawaahu beug ko beug ko bayt bi dafa am ko woyon bi yàgg waaye bàyyi daf ñu bëgg won ne mom beug na Serigne mbay qabla an arifa al hawa bobu xamagul sax luy mbëggeel yag na fa qalban khaliyan fa tamakkana gi mbeug abou bakkar Niass daje xol go xamné da wéet gi daal di jàppandi amna ko woyon ci ñu ñëk ñi lii bàyyi nee ne wax li mu wax ci Serigne Aboubacar bëri na lool waaye nag Serigne Aboubacar mii li lay won ne ngand la jàmbaar la moom bind na nee ne dem nañ ba takkusaan bésu lënd benn bés ci bésu yàlla yi ci bésu lënd ginnaaw julli takkusaan ah ñoo ngi toll woon ci 17 zilhijja mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru zilhijja ñu ne ban at la mooy atum junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom mooy 1355 ci gàddaayu yonent bi mu tombeek zilhijja fukki fan ak juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ginnaaw ba mu jullee tàkkusaan nee ne xadara yàlla gee ko woo xadara yàlla gi xadara yàlla gee ko woo mu ne xadara gi naadat niyal na naadat niyal xadara xadara gi mooma woo بأن يا أبا بكر اكتب ما تمليه عليك الحضرة واسأل الله بلسان الحضرة الرحمانية وباسمه النافع أن ينفع بها كل من قرأها أو طالعها أو تشوق إليها فإنه ولي ذلك والقادر عليه من حضر الله جيكو وني أبو بكر bindal lépp لو خمنا ne يا الله bi dicté na خمنا حضر يا الله xam ne xadara من maa ngi ñaan yàlla xadara bay wax de mu ne maa ngi ñaan yàlla ci làmmeñu xadaram arrahmaniye gu bëri yërmande googu ak turam annaafi turam mooy kii njëriñ ba muy njëriñ ci képp koo xam ne jàng na téere boobu ngay bind li ngay bind dig li lay dig te jëlee ko ci xadara yàlla gi wala mu def ko mu taalaa wala mu bëgg ko rek wala nga dégg ko ni bëgg ko rek yàlla njëriñ la ci fa innahu waliyu zalika yàlla mooy ma ki féetoo loolu ki loolu wal qaadiru alayhi yàlla mooy ki attan loolu mu dal di jël bikam nak di bind li koy hadara yàlla bi di dicté mu nek téré mu tuddé ko an nafahaatul qudsiya fi likamil ilahiyya an nafahat moy ay ëf al qudsiya ëf yu sell fi likamil ilahiyya ci hikma yàlla yi lillahi jahada fi ayaamihi alanan fa aasha barran kariman aabidan batala li bëri li may wax nag ci ñi nga xam ne dañoo relation ak Baye li bëri li ma ciy wax maa ngi koy jële maa jëlee ci téere Mouhamad Abdullahi bi kooku maa ngi koy ñaanal yàlla may ñaan yàlla yéen ñëpp ngeen ñaanal ko moo ngi dund ba léegi liggéey na liggéey goo xam ne soo ko gisee da nga yaakaar ne kii dee na depuis at ndax euh, liggéey gi ni mu réyee macha allah yàlla na ko yàlla bàyyi suñ kanam ànd ak wér ak yokkute yàlla fay ko kooku bokk na ci ñi nga xam ne fay du def leen di tudd ba bés pencum yàlla duñ ko fàtte Cheikh Mouhamad Abdullahi Jejubi Ah, Cheikh Abdoulaye Diedhi ba mooy mooy baayam eh, kii Cheikh Serigne bay Niass Cheikh Serigne Baye Niass moomu ci wàllu gàttal bam mu génnee àdduna moo génn àdduna 1393 Baye Niass def na ci moom marsiya di wax tawaffahul ilahu tawaffahul ilahul barru qarman azizan saliman min kulli aybi wa sahalahu alhayatu imama qawm imama qawmin أخا ثقة عليه رداء ربي نشا في طاعة المولى سبيا له أمل كبير سفي سفي قلبي سفي قلبي له أمل كبير سفي قلبي mu ne yàlla jël na ku baax kii muy ponkol xarnu di ko tedd di ko mucc ci bépp ayiba ah dund na di imaam gaañi góor yàlla yi mu nekk mbokkum siqa ku ñu wóolu ca yàlla yàlla nekk ci moom ngir ma nekk yàlla mu ne sosu na ci jaamu yàlla moom Serigne bay ñas boobu xale la waaye jëfu mag rek la doon jëf xale buy jëf jëfu mag loolu soo ko bëggee gis soriwul dara xale yaa ngi nii di jëf jëfu mag Baye Alaaji Muntaxa mi xale la bu ndaw macha allah Seydi euh, Cheikh Mouhamad Lamine Kouta mën naa wax ay xale lañ ndax xëy na maa leen mag waaye ñoom li ñuy def jëfu mag la li ñuy liggéey liggéeyu mag la kon ñooñu ay xale lañ ci ay at waaye ay mag lañ Serigne bay ñas noonu la meloon Baye Niass nee ne lahu qadamun rusuuxun fi lmaali wa hu xaqan min almawla bi qurbi amoon na ndëgg gu sax ci maqaama yu kawe yi te wa hu xaqan moom ci dëgg min almawla bi qurbi ku jege yàlla la marsiya bi dafa gudd waaye lii laa ci coppati pour ma mën a dem ci keneen Baye def ne jawaadun munfiqun taalin musallin bi jaw fi leyli fi zikrin bi lubbi Baye ne jawaadun ku tabe la woon moom Serigne Mbaye ku tabe la woon munfiqun kuy joxe alalam talin taalin kuy jang alquran musallin ku don julli la bi jaw fi leeli fek nit ñangi nelew fi zikrin da dan tuddu yalla bi lubbi di ko tuddee ci lubbu kuy tuddu yalla ci lisan ak kuy tuddu yalla ci lubbu ñooñu bokkuñu euh, ma jall ci Seydi Ali Cissé euh, Seydi Ali Cissé nak mo ngi judd 1906 1906 kon dafa mel Seydi Ali Cissé baye ko mag yoon juróom benn att mu nekk amaanatun min walidi cheikh na alhaaji abdullahi ñas bu mag bi waajuru baay moo jël Serigne Aliou Cissé dénk ko baay te kenn ku nekk xam na waajuru Serigne Aliou Cissé nan la meloon ak baay ba ci maamam sax maamu Serigne Aliou Cissé waaw ba ci maamam Cheikh Mouhamad Abdoulaye def ne dafa wax bi muy wax Serigne Aliou Cissé dafa wax benn jumla boo xam ne soo déggoon arab da nga xam ne waa ji ci jumla bi wax na ci Serigne Aliou Cissé dundam yépp bam jeex te daanaka benn jumla la rek mu ne maa kaana yashkuru annahu mawjudun maa cheikhi walakinahu kaana yaalamu annahu mawjudun bi cheikhi mu ne Serigne Aliou Cissé musul yëg ne moom moo ngeeg bàyyi waaye moom xamoon na ne mawjudun bi cheikhi dafa nekkee bàyyi kon ku nekkee bàyyi ak ki nekk ak bàyyi du benn wax ju rëy a ngi nii te waa ji def ko ràbb ci arab ràbb ju am solo mu ne musul yëg ne moom Serigne Aliou Cissé musul yëg ne moo ngeeg bàyyi waaye toujours xamoon na ne moom daa nekkee bàyyi te wax yi ci olof dañuy faral di sew lool te ku mel ni Oustaz Barham Diop daan na ci gàgganti nit ñi léeg nga dégg Oustaz Barham ne dama àndoon ak bàyyi ba si àggum ne astaghfirullah bàyyi àndoon ak man xam nga ndeke dama àndoon ak bàyyi ndeke ak bàyyi àndoon ak man ndekete du benn te ku mel ni man si ko déggee day yaakaar yow nga ànd ak baay ak baay ànd ak yow ndekete ah maa xattu jaala su safihan Oustaz Barham Diop nee na bàyyi nee na mosumaa toog ak ku yembati mu ne waaye waxu la ku yembati mosul toog ak man bàyyi xel loolu wax yi dañuy faral di sew Serigne Ali Cissé mu ne mosul yëg ne moo ngi nekk ak baay parce que soo nekkee ak baay dafa mel ne ngaa nekk baay nekk waaye soo xamee ne dangaa nekki dangaa nekk baay da ngaa nekk baay nek ngaa nekki dengan nek ngaa nekk nekkinu baay ngeen jéggal ma pol buy wax olof la da nek nekk nekkinu baay mooy firi ne kon ñaar nek fa kenn fa nekk ñi tarbi sax dama leen faral di gagan ci wax ji léeg-léeg kuy tarbi nekk ci fanaaw nga bëgg mu dégg fanaaw nga nek ana yalla mu ne la yalla ngi fépp ma ne ko déet yàllaa ngi fépp soko ko ba léegi ya ngi bokalé ci aarifina billahi la wax nak yalla ngi mom xam nañ loolu mbiru zahiri لولن جانغ كتير يالله عنك فيب بنا القرآن ده نما يكون من نجوا سلاسة إلا ورابي فنك كرك يالله عنك فدال يالله عنك فيب وأيو سوني ودي تربي بروحهم يالله أم فناو أم لجور يالله أمون بيو عن الله مع الأحباب رؤية كلتي إليها قلوب الأولياء تصارعو يو بجو وخرك ن يالله عنك فيب ده ده يالله عنك فيب خمون غا بلانغا نيودي تربي ملن غا بجا ما يالله يلب لولن غا بجا فن يالله يلب أك يالله عنك فيب بدو بين waaw ah, kon ndeke fu yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul fu yàlla amul amul waaye lu dul yàlla amul kon ndeke fu yàlla amul amul wax loolu ñi tarbiwul ñoo ko moom fu yàlla amul amul fu ne yàlla nga fa waaye lu dul yàlla amul loolu ñu yegg ñi ñoo ko moom lu dul yàlla amul kon wax bi daa sew waaw Cheikh Abdul Karim moo daan wax ɗo allah ala ala kono ko wona allah ala ɗo allah amul amul waye lu dul amul kon ñaar yi bokkuñ kon ki nekk ak bàyyi ak ki nekki nekkinu bàyyi du benn Serigne Aliou Cissé nekkul ak bàyyi de déedéet dafa nekkoon nekkinu bàyyi maanaam daal ci gàttal benn dërëm la bu nekkoon ci poche bàyyi Serigne Aliou Cissé Serigne Aliou Cissé nee ne man bàyyi musuma digal dara ma mooy ko bañ koo def lu dul benn yoon dama daf ma yebaloon Nigéria ci tukki yi may tukki di ko liggéeyal di ko xidmaal foofu lañ ma dajaleel ci àddiya om lool bàyyi ne xaaj ko ci digg bi lenn li nga yóbbu ko yow sa njaboot lenn li nga indil ma ko Serigne Ali nee na jéem naa appliquer sax li ko bàyyi wax xaaj ko ci digg bi nga jël lenn li indil ma lenn li mu ne jéem na kaa appliquer comme que ndigal la waaye lam tutaawiuhu nafsuhu fa tawajjaha bi kulli dalika ila cheikh bakkanam mayu ko pour mu xaaj ko ci digg bi mu jël lépp boobu lépp jox bàyyi mais bàyyi laaju ko ndax xaaj nga ko wala xaajoo ko te bàyyi moo la gën a xam su ko digalee Serigne Ali lan lay Serigne Ali di def xam na ko bu baax ndax yonent bi jël na nàmpatal maanaa deretam guddee gi ñu ko dindil ci yaramam mu jox ko benn xale Abdullah ibn Abbasin demal tuural ma xale bi dem làqatu ci koñ bi naan ko ndax deretu yonent bi la waaye yonent bi xol bi yëg na ne Abdullah ibn Abbasin mi ni mel ci man est-ce que tuur na ko waaw woo ko foo ko def dama kaa naan am ku jël tuuritu ndox tuuritu ndox laa ko mën a mooy sowu yonent bi ngeen jéggal ma ci kàddu bi wa ummu aymana jigéen la ko xam ne ba yonant bi yaayam di génn àdduna yaay yonant bi kenn nekk foofu lu dul yonant bi ak ummu aymana ci dawaahi madina guddi gu lëndëm yaay yonant bi di wax ak yonant bi ummu aymana rek a fa di wax yaa muhammadu kun rajulan yow muhammad fexeel nekk góor yonanti boobu tuuritu ndoxam la jox ummu aymana na ko tuural ummu aymana laxatu naan ko waye xolam dafa mel daf ko est-ce que ummu ay mën a mu ñëw mu ne ko ummu aymana fo def ndox ma mu ne dama ka naan mu ne ko lu tax mu ne sama biir doon métti mu ne ko la ya ja an nabat luki ila yawm qiyamati yow sa biir dootul métti ba bés pencum yàlla kon nekete e waji Serigne ali Cissé Baye xamna sax nan la def te tamit Baye da na wax ci sayyidi Cheikh Ahmed Tijani al Khalifa yàlla ko yàlla yërëm ah képp ku tukki soo ñëwee da nga dindi ca la nga am dara jox ma lu dul cheikh cheikh moom su ñëwee lépp la may jox dama xamul moo gën a muus ñëpp wala moo gën a dof ñëpp yaakaar naa daal tontu baa ngi ci yéen sëñ Ali Cissé nee na musul mooy ndigalu Baay Ñas benn bés lu dul ci lii te mooy gii mooy jëmm topp ndigal man noonu laa gisee mooy gii mooy jëmm topp ndigal moo tax euh, Cheikh Ibrahim ñes melool na Seydi Ali Cissé ci lettre googu mu bindoon ci Baba Makaranta ca Ghana Baba Makaranta benn góor yàlla la goo xam ne ku bëgg bàyyi la ndeysaan bàyyi sax moo ngi koy cité ci yenn ci bayt yi ba mu yendoo ci aéroport ba ne zaliltu fil mataari indi baba ah faqad raaytuhu li kulli li kulli xayrin baba nga dindi faqat bi balaa aruudi yi nay di ma indil ay jafe-jafe foofu Eh, bi yi wa maa hum minni nga gis ne ah, nga gis ne mu ne zaliltu dama yendu indi fil mataari baaba zaliltu indi fil mataari baaba eh, dama yendu ci aéroport bi maa ngi baaba baaba nag gis naa ko muy buntu ci bépp yiw lettre gam doon bind ca baaba makaranta mu ne amma ba fa ila muqaddam al baraka alhaji baaba makaranta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يليه الإعلام بأنه توجه نحوكم أميني العام العارف بالله خليفة الشيخ الختم التجاني بلا نزاع ولا شقاق سيدي علي سيسي نيابة أني في زيارتكم والأخذ بأيدي الإخوان أرجو النفع به دلول الوحدي فهو محل نظر الله تعالى وفقتم لاغتنام الفرصة آمين والسلام الحاج إبراهيم يسأل كولر باينين يو بابا مكرانتا جناب ملنيو آه، لتي لتي توب توب موي مانغ لا يغال ني جوبلونا جيم تيو امين العام سما سكرتير العارف بالله كيغا خامن بن خامن يالا كون سيرين اليسي عارف بالله خليفه الشيخ تيجاني سيرين اليسي باي ني خليفه الشيخ احمد تيجاني باي بيم كو واخه dafa mel ni daa am ko wax ah Serigne Ali xalifa Cheikh Tidiane bàyyi ne bila nisaani loolu amul xëccoo wala shiqaqin amul wuute Seydi Ali Cissé niyaabatan an nii ñëw moo ngi ñëw foofu ca Ghana moom may wuutu fii ziyaaratikum ci ziyaara leen wal axzi bi aydil ixwaan ak mu téye seen loxo yeen mbokk yi ci yàlla mu yóbbu leen ca yàlla wa arjun arjun nafa bihi arjun nafa bihi maa ngi yaakaar ne yàlla dana leen jëriñ ci ngir moom ndax benn فهو محل نظر الله تعالى لينا خمنا كودي العرب دين كوي فيريل باي نين سيرين علي سيسي موي بلاص بي يالا دي خولي تي بنديف محل نظر الله يالا سو بوغي خول بنديف بي فريتري بي موي يير موي سيدي علي سيسي لينا اه، مقام المريد مقام شيخي لي مقام بايلا سو نيهي باي مو جيل كو سورال كو سيرين علي كين مانوشي دارا مقام بايلا اه، مقام بايلا waaye su ko neexee mu solal ko Serigne Aliou Cissé ndax Serigne Aliou Cissé ko moo tax mu ne la waa ji ne la moom nekkul ak cheikh waaye dafa nekk cheikh mhm. euh, bàyyi nee ne ci lettre bi ci ndénkaane bi yaakaar naa lettre boobu ñu bëri jot nañ ko te tamit bokk na ci lettre yi ñu traduire en français وإن أنا مت ولا باقي إلا الله فالله خليفتي عليكم والولد البار الخادم الأرض العلام العارف بالله سيدي علي سيس يرعى إيالي فهو شيخ أولادي وأصحابي وخليفتي بعد الله فيهم من آه، سما ديوي mu daal di benn entre parenthèse yàlla mooy sama xalifa ci yéen ak doom ju baax ji ki may liggéeyal ki gën a gërëm borom xam-xam aarifu billah Seydi Ali Cissé mooy sàmm sama njaboot mooy sama sëriñu doom yi mooy sama sëriñu doom yi est-ce que sëriñ Ali Cissé sëriñu doomu bàyyi la rek déedéet bàyyi ne wa ashaab yi mooy sama sëriñu taalibe yi moo tax ba muy tukki mu ne leen am na koo xam ne sëriñam a ngi tukki mooy Aliou Cissé waaye yéen moom seen sëriñ a ngi fi ndax Aliou Cissé ngi fi te tamit benn bés moo ngi tukki di dénkaane di dénkaane di dénkaane ba ci yàgg mu ne oh, laa utilul maqaama laa utilul maqaala fa sayidi ali Cissé yuxni fi kulli cheyin wa hasbuhu llahu wa hasbuna ni'mal wakiilu wa salaam loolu moo ngi am ci atub junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar boobu baay a ngi aji aj ak fukkel fukk ak ñaareel baay baay a ngi aji di dénk di dénkaane ba ci yàgg ci ndénkaane bi mu ne du ma guddal wax sax ndax Seydi Aliou Cissé mat na ci lépp moom laa fi bàyyi yal na ko yàlla doy wa xasbuna yàlla nañu yàlla doy wa ni'mal wakil est-ce que wakil mooy yàlla wasalaam waxaat euh, ci beneen lettre asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, wa taala taala ci la bokk wa taala wa su ngeen di jàng lettre bàyyi waaw sax bu leen ko bàyyi waaw bi fekk dafa am lu muy doon ndax dama gis ci lettre gi ma jàng sànq eh, arju bihi a yaa ngi dégg de arju bihi a man bi may bind lettre bi dama waxoon wa arju bihi nafa dama ci yokk waaw ma dem ñëwaat gis ne waaw bi nekkul ci bind baay bi ma gaaw effacé ko ndax loo ci yokk donte benn xaraf la indi nga musiba loo ci dindi doonte benn xaraf la indi indi nga musiba man nga xeeb xaraf gi yaakaar ne xaraf gi indiwul benn maanaa te fekk xaraf gaa ngi yenu maanaa gi toll ni asamaan yaa ko yëgu moo tax nag eh, Baye Niass nee ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rahmatullahi taala wa barakaatu an madadi mawlana xaatimi wilayati almuhammadiya walada ruuxina wa xaazina sirrina walfaizu birrida taami minna في جميع الأقوال والأفعال من نشأته إلى هذه اللحظة لم يسؤني قط منه قول ولا عمل ولا نية حسب ما شهد بذلك للصديق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على تباين المرتبتين سيدي أبا الحسن وابن الحسن سيدي علي سيسي باينين ما نجي أبي لاتر بشين لوك مولانا خاتم الولاية كما الولاية خيرت ينتي الله محمد إيه يا سما دوم روحه ولد روحنا wa xaasina sirrina yow mi denc suñu secret ndax baay wax na ko ci yeneen bayt aliyun xadimi xaasinu sirri kaatibi bi tasyini ma di wala li tasyini ma di ngeen baal ma ñaari bu ci mën a nekk xat ala kulla faayiqi mu ne aliyun aliyun seydi aliyu siisi aliyun xadimi sama liggéeykat la aliyun xadimi euh, xaasinu sirri moo may dencal sama secret kaatibi moo may bindal sama tagg yi may tagg yonent bi wala lettre yi sax seydi aliyu siisi yegg na ci Baye ci maqaama koo xam ne Baye su bëggee bind lettre lam xalaat suy bëgg bind lettre boobu soo waxee Aliou Cissé bindal ma lettre jëm ci diw rek léeg-léeg mu yem fa gis naa lettre yoo xam ne dafa bindal bindal ma lettre jëm ci diw rek mu yem ci Seydi Aliou Cissé xam li bàyyi war a bind mu bind ko ci ni ko bàyyi xaatiree mu su ko indee bàyyi ndeysaan nga gis bàyyi kontaan ci ba bind ci suuf ne bind foofa ca kaw man maa ko bind maa ko maa ko digal maa ko digle nga xam ne nekk te nga yegg ci sa sëriñ ah ñun de wax dëgg yàlla loolu loolu maqaama gu kawe la ak loo am xam-xam ku tol ni bàyyi war a tontu nit ci bi mu ne la tontul ma diw te léeg-léeg sax doo gis lettre bi bindal ma diw lettre rek yem fa rek nga xam lan la bàyyi war a bind ci lettre bi nga bind ko kookuy am taw tawfiq ci àdduna kooku moo la ëpp tawfiq moo tax xaasina sirri kaati bi li tasili matihi qad ala kulla faayiqi mu ne Seydi Ali Cissé moom kawe na ci képp ku raw ci kaw suuf bàyyi moo képp ku raw Seydi Aliou Cissé moo ngi sa kaw bàyyee ko wax te man dama ne Seydi Aliou Cissé or la woon ca xëy bu walu yàlla yi di ko xëccoo ay ati at bàyyi ñëw battre leen ne coppet Seydi Aliou Cissé indi ko yaa ngi dégg de ci Madina mu nekk lam nekk ba naar bi di wax madinatul ussisat bi cheikhi taasisa la garwa anna aliyam baabahu siisa madinatul madina boo xam ne ussisat bi cheikhi taas dañ ko fondé Baye Niass suñ ne aliyu mooy bunt bi wallahi loolu wul la xarwa anna aliyan baabahu di bunt baaba bi badal la anna aliyan baabahu da nga koy nasab mooy badalu ali bi nga xam ne mooy buntu cheikh sii saa bi maanaam usliha dañ ko defar min tarafi cheikh ndax saasa bi mooy aslaha ndekete sii boobu du sant ngeen bàyyi ci xel du siise de laa xarwa anna aliyan baabahu sii saa dégg naa ko firee baax na waaye nag du loolu siisaa bi ñoo ngi ko jëlee ci min saasa bi maanaam aslaha siisa nekk fitlun maadin mabniyun lil majhuli siisa mooy defar nañ ko moom aliyu min tarafi cheikh ibrahim moo tax Ali Cissé moo ngi noonu sir sir sirrana sirrana yow suñ mbóot Seydi Ali Cissé mbóotu bàyyi la wal faiz bi rida taam minna mooy ki texe ci ngërmande gu mat sëkk jëlee ko ci am ma rek bay waye gu mat gi gu mat sëkk gi fi jami'il aqwali nga am ma rek bay ci kaddu wal afaali nga am ma rek bay ci wax min nashatihi mune ba sayyidi Ali Cissé soso bako yàlla sakke ila hadhihi lahzati ba fim mu taxaw lam yas'uni qat musma musuma def luma métti ben bés mune bi yàlla sakke sayyidi Ali Cissé ba ni mu taxawee def luko ko luko métti mune du qawlun du wax gum wax wala amalun du jëf te wala niyatun du yéene xam nga li ci gën a doy waar mooy yéene gi yow kay man ngaa ñàkk wax nit ki lu ko neexul nga ñàkk koo def lu ko neexul waaye nga mus nga musa yéene mbir ci sa xol te fekk neexu ko waaye bàyyi nee ne wala niyatu yéene sax Seydi Aliou Cissé musul yéene loo xam ne day naqadi bàyyi ci xolom kon man jumla bi xam nga lan laa ci déggee mooy yow taalibe gi la ngay xalaat sa xol la ngay yéene bàyyi nga koy gis ndax su nekkee ne loolu daa fàddu bàyyi bàyyi di la tëskiya di la setal di la sellal ci sa biir yéene nekkete bàyyi xam na yaa ngi dégg ne ñun ñëpp lu ñuy xalaat suñu xol waaye nag lii Cheikh Abdoulaye Diédhiou ba waxoon wul Hamid ci àll ba booba ñoo ngi jublu Kawlax mu ne ko hali Cheikh Ibrahimu ma daama kawnuhu qutban al yaraana fii ci àll bi est ce que bàyyi ñes moom ñuy gis comme que xutbu la est ce que bàyyi ñes moom ñuy gis mu ne ko yow téere ga ma la joxoon sirul akbar pour nga liir ko mu ne ko ah mu ne ko gisoo fa bàyyi di wax ana nafsu wal afaqu mahma raaytaha tarayn maay bakkan yi maay gox yi bakkan mooy lépp luy dund goox mooy lépp lu dund doj yi sax dugg nañ ci yaa ngi di garab yi dugg nañ ci mahma raaytaha tarayn yi soo gisee bakkan yeeg gox yi gis ma fa fa innil kullu maay lépp gisoo ko bayt bi gisoo ko mu ne gis naa ko mu ne ko yow bàyyi ne la maay bakkan yi maay gox yi ngay laaj ndax moom lay gis yow léegi bàyyi yow sa bakkan bi bàyyi la ana su may bakkan yi yow sa bakkan bi bàyyi la ngay laaj ndax bàyyi may gis comme ko la ndax moom may gis mais mooy yow yëgoo ko bàyyi mooy yow bàyyi def ne araka taraani bi haysu la taraani wa naa la yaa ngi may xool foo ma giseewul te bokk na ci kéemtaan nga may xool xujju te gisoo ma loolu kay kéemtaan la fii gaa yaa ngi gis Baye mais dañ koo xamul bëri na koo xam ne ndeysaan yaa ngi taxaw di critiquer Baye di weddi Baye te fekk yow ci xéewalu Baye ngay wëlbatiku suba ngoon Baye moo lay xéewal añ bi moo lay xéewalal reer bi moo lay xéewalal ndekki bi yaa ngi wëlbati ci xéewalu Baye di ko critiquer di ko bañ saa boo xëyee yaa ngi xëy pour critiquer ko pour bañ ko wa azlamu ahlil ardi man baata xaasidan li man baata fi naamaihi yataqallabu ki gën a tooñ ci kaw suuf mooy kii iñaanal koo xam ne ci xéewalam ngay wëlbatiku suba ci xéewalam ngay wëlbatiku ngoonte yëgoo ko kon doomu aadama rek a jara yërëm hmm? moo tax bàyyi nee ne même yéene gi Seydi Ali Cissé yéene euh, Seydi Ali Cissé yéene loo xam ne dafa ñaaw jëmale ko ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass fii nag bàyyi nee bàyyi radiyallahu anhu ci li muy wax ci Seydi Ali Cissé nee euh, حسب ما شهد بذلك الصديق حسب ما شهد بذلك للصديق النبي من كم نيكو يونتي بي سيدا لي صديق يونتي بي سيدا لا سيدنا ابو بكر الصديق موسوكو ديف لو نياو موسوكو جيف موسوكو واخ مان كوي سيدا سيد علي سيس لول لا باي على تا بايو ني المرتبتين من مرتبه نك دانيو سوري ديغنتي سيد علي سيس ابو بكر دو بن واي نك man tamit sama diggante yonent bi xëy na yonent mom moom ëpp grade waaye lam seedaloon siddiq mang koy seedeel seydi ali Sisi, Sidi abal hasan Bayu hasan wabnal hasan domo hasan Sidi ali Sisi. bela ji abdoulaye génne aduna. ndongo yi bëri dañu babastiku dem jokku ji ci bay loolu mom ku jàng taarix kuy déglu mag ñi di wax da nga gis ne bi alaji abdullah génnee aduna bayu bay wajuru bay ñu bari dañu babastiku dem ci Cheikh Cheikh Ibrahim ñes jokk ci ci mom direct waye xam nga Seydi ali Cissé nan la def dafa ñëw ci Seydi hadji mam al hadji al Khalifa ñes di al hadji Abdullahi di Khalifa al hadji Abdullah di alim di alwaliyu di attaqiyu di al di di lu ne waaw Seydi Seydi Serigne Mouhamadul Khalifa ñes lu ne la dafa ñëw ba ci mom def ko ne man de dama amoon yéene dem jokku ji ci Cheikh Ibrahim Niass Serigne Serigne mam Khalifa Niass dafa kontaan ba jóg nee nañ dafa yaa ngi dégg ki wéeru rek jóg ne ko haza min kamali adabika wa husni xuluqika faqad azintu laka fi liltihaqi bi Cheikh Ibrahim walan yasbiqaka saabiquuna walan yalhaqa bika laahiquun mu ne ko lii nga def nii ci ca teggin gu rafet la yow Ali Cissé te ci sa jikko ju rafet la bokk mu ne may naa leen diggal demal ci Cheikh Ibrahim Niass walan yasbiqaka saabiquuna ña la fa jiitu duñ la fa raw te walan yaltaxiqa walan yalxaqa bika laaxiquuna te ñiy ñëw sa ginnaaw duñ la mën a dab mu ne ña la jiitu ci bàyyi duñ la raw abadan te ñay ñëw sa ginnaaw duñ la mën a dab abadan xoolal waxu wali yàlla gi lii mooy wane ne maam xalifa kenn gënu koo mat wilaaya kenn gënu koo xam yàlla maam xalifa laa wax wax jii mu wax nii day jàngal nit ñi teggin ndax moom mooy xalifa baayam ndongo bi kay sa sëriñ nga nga jokk woon génn na àdduna yaa ngi bëgg dem ci keneen ñëwal ci xalifa bi nga ne ko sëñ bi may ma digal ma dem ci diw ma ne du la la sëriñ euh, Ali def dafa kontaan moom maam xalifa mu ñaanal ko waaye warlul ko demal ña la fa jiitu duñ la raw est-ce que xam ngeen ñi yegg yàlla ci loxol bàyyi Seydi Ali mooy neuvième bi mooy juróom-ñeenteel bi am na kon juróom ñett yu ko jiitu est-ce que ñoo ko raw ci yàlla abadan la la la ñoom ñépp am na foo xam ne dafa bëgg a yegg waaye Serigne Aliou daal mooy ali Aliou nag mooy ku kowe bàyyi nee na ci li may taggal lim may bindal samay tagg kad ala Aliou la mais ala kowe na kulla faiqin képp ku rawoon li bàyyi ñi raw yaa ngi dégg di Seydi Aliou moo nekk seen kaw kon déggal na li maam Khalifa wax wax maam Khalifa bi te gis nga taarix ya nga daan gis ci téere baay yépp Seydi Ali moo ko daan def taarix ya nga xam ne ci hisaabul jumal la maanaam bàyyi tukki na Nigéria ban année nga jël chiffre yi yóbbu ko ci hisaabul jumal génne jumla bu rafet te lii nii macha allah Seydi al imam Cheikh Tidiane Cissé ko ci macha allah Cheikh imam euh, Cheikh Tidiane Cissé xam-xam la macha allah bi la te yàlla may na ko tawfiq gis nga euh, moom Serigne Ali Cissé ban année la juddu ci gàddaay yu yonent bi mo ngi judd 1324 1324 la judd bay mo ngi judd 1320 wala 1318 sank oustaz mohammed Lamine Kouta mo ngi koy leer ci ñaar yi Serigne Ali Cissé 1324 boobu mom def ko génnee ci hisabul jumal ne at bi moy xat chakar xat chakar moy sant na yalla xat chakar soko limé moy 1324 soo xoolee moom ba muy aji màkk moom Seydi Ali moo ngi aji màkk ci atu ban ban at 1374 1374 ci gàddaayu yonent bi ci hijriya laay wax waxuma ci miladiye ba mu demee aji màkk mu xool at bi mu mu dadeeg wa inna hajji la mashkurun wa inna hajji sama aj gi ma aji la mashkurun aj gu yàlla sant la ndekete soo limee loolu moo lay jox at gam aji moo ngi mel ni rek ma ziyaare ji woon haj misri ci at booma mu tombeek mu aji màkka mu ñëw ma def ci moom benn xasida ci xasida bi ca njëlbéen nga naan ahlan bi hajjin hajjahu haaju tuqaa fi aami hajjal haaju hajjan mushriqa ci at woo xam ne hajjal haaju hajjan mushriqa soo limee aj aj haaj aj na aj gu gu leer bu jolli mu jox la at ga nga xam ne moom la yaa ngi dégg de waaye ku ko man nag ak ku koy jéem du benn Seydi Ali li muy def def koo man taarixu rihlati cheikh yi ila

def ne atub nasrun min allahi wa fathun qaribun yi nga gis taarixu tukke Baay jëm ci Nigéria 1389 la Baay dem Nigéria ba mu koy taarixal def ko ne fa lutfullahi chamilun bina mooy yomb yomb yàlla yi denc nañu yi macha allah day firi xadam gam am xadamun rusuux yaani fil ilmi ak tamit am yitte ci mën a gestu mbir yi yàlla ñu ko yàlla yërëmal yërëmal ñu euh, Seydi Sëriñ Aboubacar ñas yàlla yégal leen euh, ci misaani Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu euh, Cheikh Hassan Deme laay ñetteel fii Seydi Cheikh Hassan Deme moo ngi juddu 1920 ah, la juddu ndekete bàyyi magee woon na ko lu man ñaar fukki at moom nag ca Fuuta la jóge ah, kii an nekk nekk naag benn sëriñ gu tudd Cheikh Seydou Chora su ngeen gisee may gàttal mbir yi ci temps bi la ndax xaw nañ jotaay bi xaw na yàgg cheikh saydu cheikh saidu shora benn boroom xam-xam la ca kanil nekkoon aalim euh, mokkaloon téere bu tudd shoraaw ba ñu ko daan woowee cheikh saydu shora euh, cheikh hasan dem nekk nag moom 14 ans di ko liggéeyal ci wàllu yàlla waaye ndekete yoo moom la mu ko doon liggéeyal ci biir loolu moo ngi doon tarbiyu waale tarbiyu nag euh, nañ ngeen ko xamee ci bàyyi ña ci jamono gi ak tamit na ko daan ñenn ñi defee ci jamono googu du benn waa jamono jooyu tar bi gi léegi da ngay nekk ak sëriñ bi di ko liggéeyal moo xam da ngay togg wala dangay ngay yaa ngi dégg de wala da koy bësal tànk wala da nga koy toggal ataaya nga nekk moom ci liggéeyal ko mu lay jox ay tawjihaat di la jox irshadaat waaye fuuta li ci ëpp mooy sëriñ bi day jël benn téere ci téere góor yàlla yi jox la ko ne la liiral loo xamul nga ñëw laaj ma waaw loo xamul nga ñëw la ba léegi gis naa ay kilifa foofu ci fuuta noonu la ñuy tarbiyoo seen i taalibe yi léegi nak bam ko joxé téré jawahirul maani Cheikh hasan Dem di lire nee na Cheikh Hassan Dem nee ben bés ma ngi lire ba ben hadith euh hadith bi di wax hadith bi di wax inna allaha xalaqa aadama ala suratihi wa qadafahu fi bahrihi yàlla sàkk na ci meloom moom meloom moom d'abord loolu rek laay wax du wax meloom moom yàlla wala meloom moom aadama inna allaha khalaqa adama ala suratihi wa qadafahu mu sànni ko fii bahrihi eh, ci géejam yàlla sàkk na aadama ci meloom mu sànni ko ci géejam Cheikh Hassane Deme nee na damir bee ko jaaxal fan lay dellu yàlla sàkk na aadama ci meloom moom moom man ci meloom moom yàlla mu ne su nekkee da nga ne ci meloom moom yàlla yàlla amul meloom léegi damir bi daf ko jaaxal soo ne yàlla sàkk na aadama ci meloom moom aadama aadama moom balaa ñu koo sàkk kenn xamul woon meloom aadama kon doo mën a wax yàlla sàkk na aadama ci meloom moom aadama kon wax bi day xaw a juutu ndax aadama balaa ñu koo sàkk amul woon melo ba ñuy wax aadama de sàkk nañ ko ci meloom ba ñu xam melo ba lañ sàkkee aadama léegi am wasnu am wasnu mooy baxru bi léegi te ginnaaw bi nga defee sa irtijaal arab yëpp gudd te maa ngi leen di yëgal ne wax na fi arab sànq ba jeexal eh, te xoolu ci kayit te maa ngi lay géñal ci yàlla amul benn laxn laxn mooy benn faute amu ko ci grammaire amul benn faute ci sarf mooy conjugation arab ndekete gis nañ بشير عبد الحميد كشكي قالوا يبين خطيب المنابر خطب 40 عاما لم يخطا في الصرف ولا في النهي خمنا خطبنا 40 عام في منبر تدا غومبا تي مسول ام بن فوت في غرامير مسول ام بن فوت في كونسيير ما في صرف خنا كون كوك بيم دمي نيغا ياكار كون جيخنا ني مل ني نيو دوتو نيام مي موغي ني يعني دي واخوما لا ارتجال عربيه مي الحمد لله ارتجال شعري irtijaal siir yi tamit loolu beneen beneen mbir la ku ko xamul woon na ko ci xam man daal dem naa ba xalaat lan laa ko war a jox ci xasida bi lu ma téye xeeb ko ba ne woon su ma yàlla mayoon xuwa jibril danaa yenu mbaar mi ne ko am hadiya wala boog ma bàyyi ba mu yëg këram ma yenu ñu ñëpp def leen ay gëléem yéeg leen wala istataatu hamaltu nnaasa kullahumu ila said ibni abdillah borana ñëpp ma soppi leen ay gëléem a ay fas li mu wax ñu laaj ma fooy jëm ma ne ne dama ziyaare ji Lamine Kouta ngir màggal addi macha allah cadeau gi gi ma jox. sëriñ bi yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla yokk ci barke alxuraan ah, xale nga yàlla def ndaw man léeg-léeg damay bëgg dégg arab yu neex rek cokkaasu ko yónnee ko benn message bu ndaw rek mu moom ma yónnee dem bu benn message yaa ni message boobu yàqal na ma lu bëri ci li ma doon gestu fii waaw parce que daa jël sama temps message bi am na ay mbokk ay taalibe yoo xam ne ci ñun leen jokk ci wàllu yàl ca Abuja ba ci Ibbi yaa ngi ba Suleja ñooñu dañ ma ne ngir yàlla saa bu la Cheikh Mouhamad lamin Kouta yónnee message dimbali ñu yónnee ñu ko waaw ñoom dañ ciy bànneexu di ci bànneexu di ci bànneexu dañoo toog foofu benn jiir sa benn guddi ci Nigéria daanaka lu ëppoon ci guddi gi yëpp ñoom ci Mouhamad lamin Kouta lañ doon waxtaan li ko waral dañoo mos a ñëw sama gàmm gi Mermoz Oustaz Mouhamad lamin jël fa kalima arabiya ndeysaan mu cuqu leen daal ñu dem daanaka affaire bi ñuy taxamti ko rek Euh, loolu dama koy wax rek ngir ñu sant yàlla ñu xam ne gaa yi dem nañ waaye gaa yaa ngi fi ba léegi incha allah euh, sëriñ kii maam alaaji bii ngeen gis nii moom fu ma ko gis maam maam alaaji moom nitu yiw la maam alaaji moom ak sëriñ maa yi siise ñoo nuroo dañoo mag rek nekk mag dañoo judd rek nekk mag ci gàttal daal am na ñoo xam ne dañoo judd rek nekk mag jaarul gauche jaarul fenn maanaam dañoo judd rek tegu ci yoon bi ñoom li ñu xam mooy jàng rek ak jàngale moom ci la bokk ñoo koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ci barke alxuraan ala kullin am na boroom borom xam-xam yi fi nekk oustaz Thierno Samba Ba ca Kaaraan moo ngi fi wéykat woon tamit borom xam la moo ngi jàngale ko day firi alxuraan ma moom moo nekkoon ki doon remplacé Thierno Ndiaye dukkee ca e, Ndar nekk borom xam-xam oustaz Cheikh Abdoulaye moo ngi nii moom moo yor yaa ngi mbaax wara Abdoulaye Zine fële ca Nouakchott moo ngi teew bi may ñëw ñoom ñëpp macha e, ñëw. kii setu maam xalifa la moo ngi nii toog ci suuf ku wàccee boppam ku bëgg yàlla tuuti li muy lekk tuuti li muy nelaw bëgg xam-xam fi nga gis nii bokkal na alxuraan ci man lay jàngee moo ngi jàng alfiyatu ibnu maliki te moom xaw na ci waaxu tuuti macha allah ali ba moo ngi nii sama rakk la Ousmane Ba macha allah shaayir bi ali ba ñun ñoo ànd ñëw gis ngeen ko abdullahi moo ngi ni jàllo eh, eh, ak eh, yaakaar naa Seexna Mokhtar Diallo fatan warisal faxamata min abihi Mouhamadou Zaka Mokhtaru Zamani ñu ñoo ànd doomu Thierno Abdoulaye Diallo nekk muqaddam Serigne Ali Cissé foofu ci Medina Mbaba ñun ñëpp ñoo ànd ala kullin fii sama nijaay Cheikh Ramata moom fii sama nijaay Babacar moom ñu jóge ba kër yooya ak sama nijaay Aliou Badou Badou gaa yëpp macha allah bi ñu déggee affaire bi dañoo bàyyi seen yitte eh, di nuyu sama xarit Oustaz Thiam mi nga xam ne moo tarbi Serigne Mouhamed نكوسوفر كواتي بابن بابن خم خم ما شاء الله المقدم بابلمين نوين نوين شيخنا علي جاي شيخ علي جاي دي خادم الشيخ ماهي على كل كما تدون خم اللي تدنا له كي سما خالت وذكر القلب أفسه من ذكر اللسان الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من هين الإلهي نوين عصام جبر مغني سوحنا الحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من هين الإلهي والسلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله laa ilaaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal liggéey fay bi si ji barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay bi si ji barahama ñu leen di gërëm. ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV